bismillah irrahman irrahim alhamdulilah rabilalamin waliyu salihin tumma alsalatu walsalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma baad qala allahu taala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 ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا قصة أصحاب الكهف yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa nekkoon makka di woote ci lislaam di ko yàlla subhanahu wa taala yebal ngir mu woo ci nit ñi mu tàmbali di woote ci jëmale ci tawxid ci jaamu yàlla subhanahu wa taala wéetal ko bañ koo bokkaaleek dara bàyyi seen xërëm yi nga xam ne ñu ngi koy jaamu ku wét ci loolu ca di jànkoonteel ak di dajeeg ay coono ak ay loraanga yoo xam dafay jóge ci ñi weddi yàlla subhanahu wa di jëm ci moom am kuréel gu ndaw gu ko topp tuub dugg ci lislaam nekk ak moom mu leen di jàngal diine di leen yar di leen teeti ci diine jooju ñu nekk ca wéet tumuranke ci loolu yàlla subhaanahu wa taala ci jamono jooju mu leen di nettali ci gaa yi nga xamante ni bi jiitu woon nañ ay nettali yoo xam ni da ciy dëfal ci seen tumuraanke googu ñu nekkoon nekk ci kaw dëgg li leen wër lépp nekk ak réer nekk ay lëndëm te dëgg gi ñu fi woo nit ñi nit ñi nanguwuñ leen cee topp di leen sax noonu ci kaw dëgg jooju yàlla subhanahu wa taala di ko nettali ay qisas ay nettali ci téeram bi subhanahu wa di ko dëgëral moom sallallahu alayhi wa sallam di ko defal di ko wan ko lii am na ñu fi jaaroon gëm ma ñoom itam jaaroon nañ ci wala sax jaaroon nañ ci lu ko raw ci ay métit ak ay jafe-jafe ci kaw dëgg am ay loraange yu bëri yoo xam ne daan nañ ko teg ci seen kaw di jóge ci ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla subhanahu wa taala kon njëkkewuloo ko moo tax ma ko doon wax naan wa in ko in yukadibuka faqad kudibat rusulun min qablik ñoom bu ñu la weddee du yow lañ njëkk a weddi yabaloon naa ay yonent yu la jiitu ñu ñëw fi di woote ci dëgg nit ñi weddi leen naka noonu itam ñi nga xam ne ñoo ko toppoon moom sallallahu alayhi wa sallam ci kaw dëgg googu gëm lislaam tuub dugg ci lislaam nekk ak moom di tumuranke wéet lool ci loola ñu leen ci mbugal di leen ci fitnaal di leen ci lor bépp façon yi lor ñoom itam soxla woon nañ dëfal boobu soxla woon nañ ku leen dëfal ngir ñu gën a mën a muñ ci dëgg googu ñu nekk yàlla subhanahu wa taala di nettali ay xisas mu bokk ci biir nettali yooyu muy nettali ci alquran nga xam ne lu bari lañ ci mën a jële ci ay jàng loo xamante ni yàlla moom moo ko namm mu soob ko mu jaarale ko ci ne sax yéefar yi ci boppam ñoo ñëw di ko laaj yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy ay xale yoo xam ni ay xale yu ndaw lañ génnoon di rawale seen ngëm yàlla ndax dañ nekkoon ci société boo xam ne ñoom gëmuñu yàlla ab buur lañ am mu samp boppam yàlla ne nit ñi nañ koy jàmm nit ñi nañ nekk ci lu ko neex bu dégg bëccëg kenn ñemewul wuute ak loolu ku wuute ak loolu mu mbugal la mu fàtt la ay xale yu ndaw yàlla baaxee leen ñu gëm yàlla ñoom ngëmin gu wér parewuñ pour bokkale ko ak dara di dund ci société boobu buur ba jot ca menacé leen jox leen nag ultimatum ne leen maa ngi leen di bàyyi ba dat sàngam bu ngeen ma waxul lu leer ma def ak yéen nangam sàngam xale yi daw génn di rëcc di di rawale seen ngëm yàlla def yéefar yi ci boppam ñoo ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasallam di ko laaj ndax ñoom biñ gisee yonente bi alayhi salatu wasallam mu ñëw nekk ci seen biir juddu ci seen biir ñu xam ko yar ko ba mu toll ni mu toll amul beneen xam-xam bu ñu xam boo xam ne war na koo mën a génn dem jàngi ko feneen ndax moom daawul bind daawul liir mais li leen jaaxal ci moom mooy mu xëy benn bis di ñëw di leen wax ak di leen nettale yoo xam ni xam nañ ni lii moom ay baayam ay maamam kenn ci ñoom xamu ko woon kon fan la ko war a jële loolu question la woon bu nekkoon ci seen ci seen ci seen biir mënuñ ko woon tontu mooy la fee muy ñëw di leen wax loo xam ne ñoom xamuñu ko woon te xam nañ ñi amul fu mu ko war a mën a xamee ji bu fekkee da ko war a mën a xam ci ñoom jaww ji ñuy dund kon ñoom war nañ ko mën a xam parce que ku nekk war nga mën a xam lu mu war a mën a xamal bopp da ko war a mën a xamee feneen ñu bëgg nag léegi pose ko ay question yoo xam ni loolu dañ ciy gën a leerlu xam kii fan mooy source d'information li muy wax ni fan la ko jëlee mais ñoom ci seen biir amuñu ay questions yoo xam ne mën ko ko war nañ ko mën a poser te du leen ci indil tontu xamuñu ko parce que ñoom ci wàllu diine yi nga xam ne yàlla moo ko wàcce muy les religions révélées yi yàlla subhanahu wa taala wàcce ñoom xamuñ ci lu bari ndax ji téere yi yàlla daan wàcce mi ngi ko wàcce ci banu Israël mu yahudi ci ñoom la yàlla yebal ku mel ne Moussa ak Isa ak yeneen yonent yi ci des kon ñoom amuñu ay téere yoo xam ne ci lañ mën di xool pour di ko laaj ci mbiru yàlla ak yu mel noonu léegi ñu jël ñaari nit muy an-Nadr ibn al-Harith ak Uqbat ibn ab ibn Abi ñaar ci seen kilifa yi ci seen ponkali weddi kat yàlla yi ñu tànn ci ñaar ne leen léegi da ngeen di dem Yathrib mooy fi ñu tuddee ginnaaw bi Madina foofu am na ay yahut yu fa nekk yoo xam ne jàng nañ tawraat xam nañ ko xam nañ lu bari ci xew-xew yi jàlloon ci mbiru diine ak yooyu bu ngeen demee ngeen laaj leen ay mbir yu jafe yoo xam ne buñ ñëwee ginnaaw bi dañuy dem ñu laaj ko Muhammad xool ba xam dina ko xam wala du ko xam ndax lépp rek pour xam ba xam fi'lan li muy wax nii naan yàlla moo ko ko wax yu dëgg-dëgg ci yàlla la jóge wala ay inspiration boppam la yu muy wax nii rek bi njabalee ñaari ñooñu mooy an-Nadr ak Uqba ñu dem ci yahudi wax ak ne leen dafa am jenn waay ju ñëw suñu biir di woote ci yàlla di wax ne yàllaa ko yónni yonent la yahudi yi laaj laaj leen ay mbiram ñu wax leen lu bari ci mbiram ñu ne leen ah mënuñu dogu ci mbiram parce que gisuñu ko xamuñu ba xam li muy wax dëgg la wala déet mais mën nañ leen jox ñetti question yoo xam bu ngeen ko ko posé mu tontu leen mën ne yonent la benn bi mooy laaj leen ko ci ruux muy ruux doomu aadama ci boppam mbiru ruux laaj leen ko ci beneen bi ci des mooy laaj leen ko ci asxaabul kahf muy ay xale yoo xam ni dañu génnoon di rawale seen ngëm yàlla disparaître kenn gisatu leen ñu toog lu yàgg ñooñu na la wax ci seen i na leen wax ci seen mbir dara ndax xam na ci dara laaj leen ko tamit ci benn waa joo xam dafa doon wër àdduna bi yëpp presque àdduna bépp dajal na ko muy dul xarnayn laaj leen ko ci mbiram tamit bu leen tontoo ci yooyu yonent la gars yi daal di ñibbisi léegi bi gars yi ñëwee <coughs> daal di dem dajaloo def benn délégation waxuñ ko ne dañ demoon uti ji ay pexe dañ demoon ñëw rek ne ko dañ am ay questions la bëgg a laaj mu ne leen lan la ñu wax ko ñetti mbir yooyu ne ko loolu lañ bëggoon nga wax ñu ci sallallahu alayhi wa sallam yonente bi alayhi salatu wasallam ne leen loolu rek ngeen doon laaj ñu ne ko ne dem leen ba suba bu ngeen ñëwee naa mu fàttee wax insha allah moo tax yàlla subhanahu wa taala ci biir saar bi ci biir mi ngi ko ci yedd di ko ci jàngal naan ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha allah wadhkur rabbaka idha nasit bul waxati dara ne dinaa ko def bu ëllëgee dinaa ko def ci liy dëkkmal si ci jamono ndax ëllëg loolu lañ ci namm du rek ëllëg mooy suba rek mais lépp luy dëkkmal si ci jamono nga ni dinaa ko defe ji boo koy waxati na nga ko nanga ko gàll nanga ko aj ci coobare yàlla na ko aj ci coobare yàlla mooy nga wax insha allah bu soobee yàlla subhanahu wa taala gars yi mu ne leen kon bu ngeen ñëwee suba ma tontu leen gars yi dem suba ñu ñëw jibril ñëwul indiwul wax yi te bu jibril ñëwul indi wax yi wax ko mbiru gaa yooyu ak loolu ñu koy laaj du am fu mu mën a jëlee tontu bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jaaxle toog nee nañ lu mat 15 jours yoo xam toog na ko di séntu wax yu wax yu ñëwul mu am naqaru xol bu metti bu nekk ci xolam ndax yëfër yi ñu ngi commencé di tasaare ci biir Màkka di wax ne loolu ko daan dikkal da koo jàmb dikkalatu ko suñu question yi tontuwu ko kon li may wane li muy wax du dëgg tàmbali di jàllale ay wax ci ci biir dëkk bi loolu yëpp tamit nekk loo xam ne yàlla subhanahu wa taala am na lu bari lu ci jublu ndax xëy na nit moom li muy xoolee rek ci yàkkamteem ak ci lu gaaw tembare moom du fa xaar naan ay sax ba suba bu fekkoon ci loxoom la nekk daf koy daldi tontu ci saa si mais yàlla subhanahu wa taala mbiram moom da koy mën a aj ci àpp boo xamante ni bu sori la ngir gën a mën a def li nga xam ne moom mooy li mu namm ci xikma ci ginnaaw mbir yooyu la du nekk loo xam daf koy gaawtu comme gaawtu gi nekk ci doomu aadama nga xam ne yàlla daf ne wa xuliqa al insaanu ajula doomu aadama yàlla da koo sàkk mu nekk ku yàkkamti mbiram lépp day bëgg mu nekk lu tembare ci saasi loolu day feeñ xattaa ci jëflante doomu aadama ak boroomam day gis doomu aadama buy ñaan yàlla day bëgg li muy ñaan mu sotti léegi léegi léegi léegi léegi te léegi léeg ngay ñaan dara bu sotti woon ci saasi du nekk sax lu luy gën ci yow yàlla subhanahu wa taala moom ci xam-xamam bu sori moom du xool xool bu jege mais day xool ci lu sori moo tax yàlla subhanahu wa taala toog bàyyi jibril toog ñëwul lu mat fukki fan ak juróom ginnaaw ba jibril soog a ñëw daal di koy wàcceel ay aaya bi ci njëkk mu tontu ko ci ar ruux ne ko quli ruux min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalila ci suratu isra mu wax ko ne ko ruux boobu ñu lay laaj sa mbiru borom la mbiram ak nekkinam ak naka la mel ay mbiram loolu yàlla subhanahu wa moo ko jagoo xam-xam la boo xam ni yàlla baaxew leen ko te yéen doomu aadama seen xam-xam dafa nekk lu digg doomu dafa am fu ko yàlla subhanahu wa taala yamal dafa am ak ab lu néew la leen yàlla subhanahu wa sedd ci xam-xam ginnaaw loolu mu tontu ko tamit ci xisatu asxaabil kahf mooy xale ñu ñu ñu xam ñu ko laajoon seen mbir moom mooy li xam ne moom la ñuy waxtaanee ak tamit ci wa yasalunaka an dil qarnayn qul sa atlu alaykum minhu dhikra mu tontu ñu mu tontu leen tamit ci dhul qarnayn mooy waajooju nga xam ne dafa dafa doon wër ci àdduna bi nekk tamit koo xam ne mbiram mbir yu mbir mbir yu doy waar nettali nañ ko ci mbiram xisatu asxaabil kahf ñëw kon nekk luy defal moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xale yooyu sacrifice yoo xam ne def nañ ko ci jëmm yàlla ji subhanahu wa taala ci ne yàlla subhanahu wa dafa sàkk doomu aadama indi ko ci àdduna bi ndax saar bi boo ko xoolee bi muy tàmbali yàlla dafa tàmbali ci sant boppam pour xëcc tamit xelu nit ñi wan leen yàlla moo ki yelloo ñu sant ko ci màggaayam ak ci ay xéewalam mu sant boppam ci téere bi nga xamante ni wàcce na ko ci jaamam bi di muhammad alayhi salatu wasalaam mu wax ci yooyu tamit wax ci ñi nga xamante ni bi ñoo sosal yàlla naral ko ne moom dafa am doom mu wax ne wax bu rëy la wax bu màgg la boo xam ne ci ay nar rek lañ ko teg amoon nañ ko benn firnde wax ci màggaayu xaw ba wax jooju nga xam ne dañ koy jokkalante doom yi jële ko ci bàyyi bàyyi jële ko ci maam yi ñu koy jokkalante waaye teguwul ci benn xam-xam amul fondement wax mi ci yonente bi alayhi salatu xër gi muy xër ci yéefar yi gëm ba tax seen ñàkk gëm googu mu koy mettitlu naqar goo xam ne nee na naqar la goo xam ne mën nga cee lor sa bopp mën nga cee alak sa bopp ngir ñu gëm yàlla mais seen ngëm mu ngi nekk ci loxo yàlla subhanahu wa taala boo doon rey sa bopp sax te yàlla bëggul ñu gëm du ñu gëm loolu yëpp di wane yonente bi alayhi salatu wasallam ñeewante gi mu amoon ci ñoom ci dëgg gi ko yàlla jox nit ñi fekk si ko ci nit ñi gëm ko ndax xam na li ci nekk ci xéewal mu wax tamit ci suuf si ak àdduna bi ni ko yàlla sàkkee ak ni mu ci defee ay taar mu nekk taar boo xam ne taar buy naxee la buy waraate la ndax yàggul yàlla indi ñu fi natt ñu natt bi mooy lan mooy indi ñu fi jaamuloo ñu boppam sant ñu tere ñu xam loo ñu ne it àdduna bi day naxaate day woraate ndax taarif yi nekk léegi rek mu jóge fi nekkul luy sax lu gàtt la lu doye di la itam boo ko dee xool ak dund alaxira ndax dund boobu xaqiqatan mooy dund kon bu leen ko topp yàlla moo leen ko fi defal pour mu nekk jumtuwaay bu ngeen di jëfandikoo mais du seen objectif du looloo leen fi indi li leen fi indi mooy ngeen nekk ci li yàlla bëgg di jaamu seen borom mu wax ci loolu ne inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha linabluwakum ayukum ahsanu amala loolu boo ko seetloo ak laata muy agsi ci qissatu asxaabil kahf di nga gis ne am na yu bëri yu ci yàlla subhanahu wa taala junj yoo xam ne am na lëkkale gu ñu ko mën a lëkkale ak jëmmi qissa bi ci boppam mu jëmmi nettali bi ci boppam ndax xale yooyu bàyyi àdduna nekk ay xale tollu seen diggu ndaw ñu ci bari si ñoom nee nañ ay doomu ay notable lañu woon ci seen société waroon a mën a jublu àdduna waroon a mën a caaxaan waroon a mën a def lu bari ñu bàyyi ne ko kupp seen ngëm yàlla jaral leen ñu def ay sacrifice rejeté li seen xeet yépp nekkoon génn dem làqatu ji ci am xuntu ba li leen dal foofu dal leen fa te yàlla rek moo leen ko jaral ñu dëddu àdduna loolu kon mooy wane ne àdduna bi boo ko dee xool ak sa ngëm boo ko dee xool ak sa ëllëg tekkiwul dara warta mën a dox sa digganteeg nga defar sa ëllëg warta mën a dox sa digganteeg li la yàlla li la yàlla sàkkee indi la fi nga taxaw ci ni nga xamante ni noonu la ware moo tax yàlla subhanahu wa taala junj ci aaya yooyu nga xamante ni moom moo jiitu yu mel noonu mu nekk munaasaba laata muy indi xissa bi nettali bi mu junj junj yooyu wax ci loolu soog a nag nettali jëmi mbiru ñooñu mu wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko am xasibata an asxaaba alkahfi walraqimi kaanu min ayatina ajaba mu ne ko ndax dangay ngay foog ñeneen ñeneen am boobu istifhamiya la mooy ndax da ngay foog ndax dangaa jàpp ne ñeneen ñeneen ko li mu ko wax mooy dëgg-dëgg li am mooy dangaa ngaa yaakaar ne dangaa jàpp ne asxaabal kahfi mooy borom xunt ba gaa yi xunt ba kahf mooy cib xeer cib doj ab montagne bu amee benn pax bu ci nekk bu yaatu loolu lañ tuddee kahf muy caverne mun ne ko ndax da nga yaakaar ne gaa yooyu nga xam ne ñooy gaa yi xuntu ma lu tax ñu askanel ni xuntu ma ndax xuntu mi dafa am rapport léegi ak seen dund ku leen tudd rek léegi foog nga tudd mi ndax la leen dal fa la leen dale léegi deesu leen xàmmeeti deesu leen xamati lu dul boo nee gaa yi xuntu ma boo ne gaay yi xuntu ma rek ñu xam ñeen ngay wax ndax ni leen daloon foofu la leen dale seen histoire seen mbir seen xew-xew bi am ci xunt mi la aju moo tax léegi ñu far leen di leen askanale xunt ma naan gaa yi xunt ma mu ne ndax danga nga foog ne gaa yooyu seen mbir ak xew-xew yi ci xew yépp ndax da nga yaakaar ni dafa nekk lu yéeme ci boo ko dee xool ak kattanu yàlla ak mën-mënu yàlla ndax danga yaakaar ne lu yéeme la mooy ñoom ñu ngi ñëw di la ko laaj di ko rëyal di ko ngandal ba tax mu jar leen ñu dem ba Madina laaj ko yahudi ñu laaj ñu wax leen ko ñu ñëw di la ko laaj di ko gaaral mooy ne kon yaakaar nañ àgg na fenn fi jëmmi jëf bi yàlla def foofu ak kattanam bi mu wone foofu ci xew-xewu xale yooyu mu ne ko ndax danga yaakaar ne lu yéeme la boo ko seetloo yàlla def na lu gën a yéeme loolu fuuf loo xam ne bis bu ne ñu ngi koy romb te pourtant ñun bàyyiwuñ ci sa xel mais doomu aadama ay xar la bëgg ay xar baax la bëgg tey benn xew-xew bu ndaw amoon fii rek benn garab dara xew ci dara xew ci déformé wu jël benn forme nit ñi dañ koy daal di def àggale foo xam ne ñëpp dañuy màbb ci àll ba ñëw di seetaan si parce que dañ naan lii ab kéemtaan la ab kéemtaan la parce que doomu aadama ñoo mel noonu mais asamaan si ñuy gis bis bu nekk di ko romb duñ ci sax bàyyi xel suuf si nga xam ne ci lañuy dund sa jëmm ji taw bi di wàcc xew-xew yi xew yépp ci jamono ji lépp bu ci nekk ay kéemtaan yu mag a mag la ci wane la ak dëgg-dëgg delloo la ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala moom mi bind asamaan si tàllal ko ngay xool ba fi sa bët yam gisuloo lenn lu ko téye ak li ci nekk lépp ak li ñu ciy wax lépp ak li liñ ci xam ak liñ ci xamul géej gi suuf si ci mbindeef yi gën a mag la yàlla subhanahu ne mbind bi mu bind a antum ashaddu xalqan ami sama ndax yéen doomu aadama da ngeen yaakaar bind leen moo gën a jafe moo gën a màgg bind asamaan si mu waxoon ne la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas bind bi ma bind asamaan ak suuf boo ko seetloo moo gën a màgg fuuf bind doomu aadama yi sàkk doomu aadama yi looloo ko gën a màgg mais miin gi ñu ko miin ak nekk gi ñu ci nekk bis bu ne ñu koy gis moo tax nit ñi dañoo fàtte moo tax yàlla subhanahu wa taala wax naan wa kam min ayatin fi samawati wal ardi yamurruuna alayha wa hum anha ghafiluun ak a bari ay tegtal ay signes yu yàlla def ci asamaan ak suuf yuy tegtale amuk yàlla di wane kattanu yàlla yu yàlla def ci asamaan ak suuf nee na doomu aadama yi ñu ngi koy romb de gauche à droite duñ ci sax bàyyi xel duñ ci sax jariñu ci niñ ci waroon jëlee dëgg-dëgg ay njàng ay leçon ci xamee ci ne borom bi fi def lii ku màgg la ndax loo fi rëylu rek màggal ko ci mbindeef yi rek day wane màggaayu ki ko bind ndax màggaayu mbindeef lu mu màgg màgg màgg ak lu mu yéeme yéeme dafay wane ne ki ko bind kon kon ku màgg la mais ñun dañuy yéem léegi mbindeef yàlla yi di fàtte suñu borom subhanahu wa taala alors lu ñu gis ci mbindeef yi mu jaaxal ñu rek dañu waroon delloo ci yàlla moo tax kon mu ne ko ndax da nga yaakaar ne loolu lu yéeme la loolu ci yàlla du dara yàlla li mu leen def noonu fàtt leen ñu toog lu mat ñetti téeméeri at ak nangam mu dekkalaat leen loolu boo ko dee seet ci li yàlla def ci ay kéemtaan rek ci àdduna bi loolu du ci dara mu daal di koy wax ne ko id awa alfityatu ila alkahfi fa qaalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rachada mu tàmbali dugg ci xissa bi ginnaaw bu ko waxee wax boobu nga xam ne dafay xaw a tamit doy ndax laata muy tàmbali di ko nettali xew-xewu gaa yooyu ak seen mbir da ko daal di mel ne ku koy laaj ne ko xissa boobu mbir moomu xew-xew boobu dafa yéemu dafa nekk lu day waar yàlla bind na yàlla def na yàlla sàkk na ay kéemtaan yu gën a màgg loolu fuuf kon bu dee jariñu ci rek lañ bëgg war na am leneen lu gën a yell lu gën a yell ak lu gën a yey ñu jariñu ci mu ne jamono ja nga xam ne fàttalikul wala bokk jamono ja nga xam ne dellu na al fityatu xale ya id ma mawan mooy jamono ji nga xamante ni def nañ ab delluwaay ñan ñoo def ab delluwaay mu ne alfityatu xale ya mu jëfandikoo fu baatu alfutuwa muy alshabab mu ne kon ñi nga xamante ni bi ñooy asxaabul kahf te muy nettali seen mbir ay xale lañ dakate duñ sax ay mag ay xale lañ yoo xamante ni naka la seen mbir demee benn bis seen xeet dañoo am ay cérémonie yu ñu defal seen yàlla yi di jaamu seen yàlla yi di tëgg di fecc di def ay sacrifice ak yu mel noonu kenn ci ñoom toog di xool mbir yi ba mu yàgg mu mel lañ ko wax ci xolam ne ko lii daal li fi caaxaan la réer la lii du yàlla yu ñu war a jaamu yàlla bi ñu war a jaam mooy yàlla bi bind asamaan ak suuf mooy rabbu samawati wal ard mooy yàlla bind doomu aadama yi kooku rek lañu war a jaamu lii kenn waru ko defal keneen ku dul kooku mu rocceeku génn dem ba ci benn taatu garab mu toog fa toog ba mu yàgg keneen ci ñoom rocceekuwaat ci xale yi de génn dem ba ci benn taatu garab mu toog fa ñuy toog di toog di toog di toog ba mat benn lim ñu toog kenn ñemewul wax sa morom dara ku nekk yaa ngi bàyyi sa moroom xel mais ñemewuloo ko wax lan nga fiy toog ndax ku nekk yaa ngi nëbb sa ngëm muy yëg-yëg boobu yàlla sànni soxal nga am ko mu lay xëcc di la jëmale ci sa borom ndax doomu aadama fitra bi ko yàlla sàkkee du ko delloo ci keneen ku dul yàlla moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne woon ma min mawludin yuladu illa wa yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani képp ku yàlla sàkk ci nature boobu la la sàkk mu set wicc taxul dara di nangu ne yàlla moo ko sàkk mooy nature bi nga xam ne da xëcc di la delloo ci amuk yàlla ne am na ku la sàkk am na ku la moom ñëwuloo fi nii rek ginnaaw bi nag la jaxas jaxasi di ñëw ginnaaw bi la ñuy taqal nature boobu jële ko yóbbu ko ci leneen ñoom loolu yàlla jariñ leen ci ñu toog ba mu yàgg kenn ci ñoom ne xam ngeen ne toogoo leen fi lu dul ne da ngeen xam ne li ñuy nekk ay caaxaan la na ku nekk wax li nekk ci biiram ñu dajaloo xool naka la ñuy def suñu mbir ñu waxtaan ñoom ñëpp ñu dëppoo ci benn kàddu mooy ne suñu borom du kenn ku dul rabbu samawati wal ard mooy yàlla ji sàkk asamaan ak suuf moom moo ñu sàkk indi ñu fi pour ñu jaamu ko mais du xërëm yi suñu xeet di jaamu bi ñu dëppoowee ci loolu ñu tàmbali di dund seen ngëm googu nekk ci biir société bi ñu uute ci lool ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen société bi yépp ndax léeg-léeg nit ñi tamit dañuy yaakaar ne li ñëpp nekk ne ci rek mooy li jaadu kenn waru koo mettre en cause kenn waru ko uuteel wala yu mel noonu alors que dëgg-dëgg rek la donte benn nit moo ci nekk dëgg la benn nit nekk ci ñëpp nekk ci leneen mënut a tax mu nekk caaxaan jóge ci dëgg gi mu nekkoon dëgg bariwaayu nit ñu ko topp ak néewaayu nit ñu ko topp du ko soppi dëgg gi mu doon lay mës doon biñ nekkee ci noonu di di dund am ñu dem ba gis li ñuy dund xam ko daal di dem ci buur bi wax ko ko ne am na ñoo xam ne léegi ñu ngi fii di dund beneen diine ju bokkul ak li nga li sa diine ji nga gëm di di ci di di ci teg sa sa waa dëkk benn jàng foofu jàng bi mooy xale yi gëm nañ seen ngëm néew nañ doole bu ñu feeñalee seen ngëm googu ci jamono jooju ay loraange day daal di tegu seen kaw ñu yemale ko ci seen biir juguñu rek tàmbali di dëkk dugg ci dëkk bi di woote naan nit ñi topp leen def leen ni ak ñu mel parce que xam nañ ni bu jëmee kaw ah, duñ ko attan amaguñu kattan gu may pour ñu mën a soppi seen société kon li ñuy dund gëm ko nañ ko yemale seen biir mooy ne kon lu baax même boo ci dee woon nit ñi dafa am ay étape étape bu nekk danga war a xam naka nga ciy jëfante naka ngay jëflante ak étape boobu par rapport ak nit ñi nga xam ñoom ngay dundal boo amee sañ-sañ pour war a mën a béral kaw bu baax a baax sa dëgg gi nga gëm di ko woote def ko bu fekkee jàpp nga ni la cay juddoo ci ay fruits ci ay résultat mooy gën léeg-léeg xëy na conséquences yi ciy juddoo mais bu fekkee dem nga ba nattale mbir yi nga gis ne boo ko jëmalee kaw la cay juddoo ci ay yàqute moo ëpp foofu njariñ li nga ciy séntu bu boobaa dañ naan la bu mu jëm kaw ndax waroo ñëw di soppi lu lu baaxul muy jur lu baaxul lu gën a tar beneen bi itam mooy nettalikat yi yi nga xam ne bu ñu gisee xatta bu fekkee liñ gis lu baax la sax dëgg la ñoom bu ñuy dem di nettali dañuy wax rek pour jaxase ak pour yàq ñu daal di dem ci buur bi mooy borom kàttan bi wax ko ko wax a wax a wax a wax bul fekkee nañ ko ko doon waxee mu daal di woolu xale yi laaj leen ñu nangu loolu nga xam ne moom lañ ko nettali muy seen ngëm gi ñu gëm yàlla ak weddi gi ñu weddi y xërëm yi weddi buur bi itam diineem mu xamal leen ne leen maa ngi leen di may ay fan ngeen indil ma tontu bu leer pour ma tranché ci seen i mbir mooy da ngeen may wax ne dellu ngeen ginnaaw ci li ngeen gëm ma bàyyi leen société bi ngeen kon ne dund comme ñépp defu leen ko ma faagaagal leen kon ñaari mbir yooyu rek ñoo fi nekkoon loolu tawfiqullah la mooy la fekk buur bi jox leen rek dele loolu yàlla moo leen ko baaxe xéewalu yàlla mu ngi commencé feeñ foofu mooy buur bi ba mu leen taxawloo ci kanamam wax ak ñoom ñu nangu ne dañoo gëm yàlla mënoon na leen faa yemale wala mu tàmbali leen mbugal depuis foofu mais yàlla def buur bi am lu ko mel ne lu ko xërtal ci ne na leen may ay fan ñu soog a xalaat ci seen mbir pour soog a mën a ñëw tontu ko ci diggante boobu lañ gisante ci seen biir ne mbir yi doy a war <coughs> léegi comme que mbir yi demee na nii te amuñu kàttan amuñu benn bexe bu ñu mën a def pour mbiru buur bi léegi nañ génn ñu daw dem làqatu ji moo tax yàlla subhanahu wa taala ne id awal fityatu ila al fa qaalu kon foofu la iwaa boobu muy daw boobu làqu ji boobu foofu la tàmbalee mooy bi ñu leen menacé jox leen délai na leen bu dat sàngam jotee ñëw leen ngeen wax ma lu leer ci seen mbir ñu daal di nekkoon nañ dellu ci ca xuntuma alkahf muy xunt moom nga xam ne ñoom ci lañ làqatu woon muy xunt bi ñu xam nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa ta'ala di nettali mbiram léegi lan lañ def dañoo tàmbali di ñaan beneen darsa ngi noonu yow mi nekk ci dëgg di yëngatu ci diine di yëngatu ci les sa borom bëgg ki ngay njëkk a dimbali ko na doon yàlla subhanahu wa taala saa boo amee ay jafe-jafe am ay gàllankoor ci dëgg bi ngay dund dimbalikol yàlla làqatul ci yàlla subhanahu wa taala bu sa xel dem feneen jëlal nag ay mex ay pexe jëlal ay matuwaay parce que pexe yeeg matuwaay yàlla mu ngi la koy nettali mooy tooguñ ci biir dëkk ba ne yàlla dinañu dinañu protéger yàlla dinañu aar mais dañoo dem làqatu ci daw kon def nañ ay asbaab mais dañoo jiital ci loolu al isti'anatu billah mooy dimbalikoo yàlla subhanahu wa taala moo tax ñu ne fa qaalu rabbana atina min ladunka rahma yow yàlla may ñu baaxe ñu yërmande ju jóge ci yow defal ñu yërmande joo xam ne day jóge ci yow wa hayyi lana min amrina rachada te suñu mbir nga defal ñu ci li nga xam ne moo gën a yëwan suñu mbir dañ koy bàyyi ci yow ñu wax ne defal ñu lii bul ñu defal lii ndax yàlla moo la gën a xam yàlla moo la gën a xam kon boo koy ñaan bul dugg trop ci ay détails ndax léeg-léeg nga dugg ci ay détails ba condamné sa bopp yàlla moo la gën a xam li gën ci sa mbir ñaan ko mu tàggat la ñaan ko mu jubbante la xool sa mbir la ca gën a yëwoon mu defal la ko ci mu jëmale la ci moo tax yonte bi sa salatu salaam jàngaloon jullit bi muy def istixaara muy muy tànnaloo boroomam ci xadis abdullah ibn omar mooy yow jullit bi namm nga def mbir jublu nga def mbir xamoo lu ci gën xamoo def bi wala ñàkk def li gën jullil ñaari rakaa nga tàllal loxo ñaan yàlla subhanahu wa taala ne ko mbir mii ma bëgg a def bu fekkee moo gën ci man gën ci sama diine gën ci sama àdduna ak sama laaxira nanga ma ko defal nga yombalal ma ko defal ma ci barke su fekkente ni gënul ci man gënul ci sama diine gënul ci sama àdduna gënul sama laaxira na ma féewale ak mbir moomu nga defal ma yiw ak fu ma mën a nekk nga defal ma lu baax te yombalal ma ko jàppandalal ma ko nga gis ne ñëwuloo rek soxla mbir bëgg ko ne ala mekk na la ko yàlla defal te yàlla xam na ni la ba xam mbir moomu sa njariñ la wala du sa njariñ bari na kuy xëccu di jëm ci mbir yaakaar ne njariñam la à cent pour cent fekk ne loraangeem rek la parce que doomu aadama xamuloo mbir yow li nga xam rek nga ci mën a fa nga ci mën a yem mooy gis nga ci kaw ne lii lu baax la li nga ci mën a wax rek mooy lu baax la mais wóoru la ba xam lu baax la ci yow moo tax kon nii ñoom dañ ne yàlla subhanahu wa taala mu defal leen ci seen mbir li gën mu teg leen ci ci yoon mu defal leen ci rushd li nga xamante ni mooy yoon wu ca gën a jub ñu jaar ca kon dimbali ko yàlla mu ngi tàmbali di feeñ foofu ci wootekat yi ak ci ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla subhanahu wa taala ñu ñaan ñaan bu nga xam ne ñaan bu matale la ne yàlla lu ñu soxla la soxla nañ tamit mu teeta leen mu jubbanti leen teg leen ci li nga xam ne moo gën a jub yàlla subhanahu wa taala nettali ñu ne ba loolu amee xale yi dañoo daal di génn man dafa am lu ñu tuddee kalam muqaddar mooy loo xam da koy tëb mais day dugg ci biir wax ji da ko ciy dégg mooy ne ba amee xale yi daal di génn kon ba ñu ñaanee ñaan boobu ñoom dañoo daal di jël yoon bi jël seen i matuwaay daal di dem demee dugg ci xunt moomu làqatu fa wala bokk ñu toog fa ngir dallu ab diir pour jàll ñaar yépp bu ci nekk mën na nekk mooy ne kaaf bi li leen fa yóbbu muy xunt moomu ñu dugg mën na am ne seen destination la woon dañ fa jëm pour làqatu fa toog fa pour mucc ci ñi leen doon wër wala ne dañ fa toogoon pour noppalu mais dañ doon jàll dem feneen bi ñu defee loolu yàlla subhanahu wa daal di fatt seeni nopp daal di ci def ab kiiraay nga gis ne fatt seen nopp ndax moo gën a xóot ci nelaw moo gën a xóot ci nelaw ndax ku nelaw say nopp déggul dara kooku la ay nelawam di gën a di gën a xóot ndax kooku du yeewu ndax la plupart li lay yee boo nekkee ci ay nelaw ci say nopp lay jaare yàlla waxul ne ma fatt seen i bët seeni i nopp la wax ngir plonger leen ci nelaw yoo xamante ni duñ ci ju duñ ci jóge mu ne loolu maa ngi ko def ci kahf ba ci xunt ba sinina adada dégguñu dara ñu nekk ci am cellaaral seeni ruux sori loolu ci am nelaw ñu def ko sinina adadan ay ati ati ati at ay mbooloy at la leen fa yàlla subhanahu wa faat ci anam boobu ci biir kahf boobu mu ne summa baasnaahum ginnaaw loolu yàlla dekkal leen ñoom gaa yooyu li naalama ayul xisbayni axsa lima labisu amada ngir ñu xam ngir ñu xamle kan ci ñaari kuréel yi moo xam wala moo gën a xam ñaari wax moo xam wala moo gën a xam ñoom ñaata at lañ def foofu ñaari kuréel yooyu nee nañ mooy parce que lii daf lay tënkal xissa bi dafay mel ne ku lay defal résumé bu la ko résumé lee ba nga xaw a am tuuti aperçu ci lan la la bëgg a wax xissa bi naka la demee fu mu tàmbalee fu mu mujjee mu soo commencé nag di la dugal ci détails yi mooy dafay xëcc sa attention daf lay wax ne la lii moo am mooy tuub tuub nañ gëm nañ yàlla am nañ problème ak seen buur menacé na leen génn nañ daw nañ yàlla def na leen lii ci kahf ba ñu toog fa ay at ginnaaw bu mu dekkal leen wane dëgg-dëgg lan mooy li nga xamante ni moom la yàlla subhanahu wa ta'ala ci mbir moomu lim ci namm mooy jàngale ak wan nit ñi kàttanam ci ne moom mi sàkk bu faatee dekkil tawu ko moom moo sàkk bi fi dara nekkul hal ata ala al insani xiinun min ad dahri lam yakun shay'an madhkura nit ndax nekkul amul jamono joo xam nit existé wul woon nekku fi woon amul sax matière première bu fi nekkoon boo xam ne ci la ñuy war a mën a jële nit amal ko maanaam daray nit amu fi woon existé wul nekkul lu ñu mën a tudd yàlla amal ko sàkk ko ci lu dul dara yàlla moomu la sàkk ci lu dara nga xam ne mooy al mubdi mooy ki nga xam ne mooy sàkk création boo xam ne amul ci lu muy sukkandiku pour jëlee ci transformer sàkk day sàkk ci lu dul dara doomu aadama ci création ak sàkkam day transformer rek day jëlee ci bii yóbbu ci lii ñu ne créé na mais loolu du création yàlla mooy sàkk xaqiqatan yàlla moomu def loolu bu faatee dekkil tawu ko dekkil tawu ko huwa alladi yabda'u alxalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu yàlla subhanahu wa mooy ki nga xam ne mooy tàmbali mbind gi ca bam dul dara mu door ko amal ko bind lépp lu am te itam moom mooy ki koy delloo mooy bu demee ba mbir yépp ràpp faatu mu delloowaat ko comme ni mu meloon te mu ne loolu gënt jafe sàkk gu njëkk gi mu sàkkoon gënt a jafe subhanahu wa taala kon mu lay wax li nga xam ne moom moo am mu ne mu dekkil leen ngir wane kan ci ñaari kuréel yi moo xam ñaata at lañ fa def ñaari kuréel yooyu nee nañ mooy ñoom seen biir asxaabul kaf dañoo amoon tuuti ute tuuti divergence ci ñoom ñoom seen jëmi bopp ñaata lañ fa lañ fa toog bi ñu yeewoo ñenn ci ñoom dañ ne labis na yawman baax ba'da yawm ñenn ci ñoom dañ ne daal une journée lañ fi def wala sax xaaju journée liñ fi sax bis ñenn ñi ne bis lañ fi def ñenn ñi ne fi def bis ñenn ci ñoom ne ah, mbir yi doy na yàlla daal a xam léegi ñaari kuréel yooyu ñii xaw a mel ne ku taxaw tuuti ñi ci des ñoom di wax naan bis ak xaaju bis ñaari kuréel la léegi ñaari kuréel yooyu kan moo xam dëgg-dëgg li ñu fa nee na mu leeral ko nit ñenn ñi nee nañ ñaari kuréel yi mooy ñoom ak seen aw xeet ñoom kuréel lañ seen xeet aw kuréel la yàlla dina leeral kan ci ñoom moo xam dëgg-dëgg asxaabul kaf ñaata at lañ def ci xuntu moomu mu daal di tàmbali nag léegi ginnaaw bu mu la defalee résumé boobu ci xissa bi nga gis quran ni muy waxee nu mu doyee waar daf lay wax def lu ñu tuddee al al al ijmal muy tënkal la mbir yi tënk ba mu yàgg mu commencé di tafsil di la ko leeralal benn par benn mu ne ko nahnu naqussu alayka nabaahum bilxaq ñun ñoo lay nettali seen mbir ci dëgg yàlla subhanahu taala ne yonent bi alayhi salatu wasalam nahnu naqussu alayka nabaahum bil haqq ginnaaw bu mu ko defalee résumé boobu mu daal di ne tekk léegi nag ne ko xaaral nag ñu nettali la mbiru xale yooyu naka la demee te lépp tegu ci kaw dëgg nga gis ne kalimatu naba bi mu jëfandikoo ci arab dafay mel ne comme benn xew-xew benn xew-xew bu am nga ciy laajte di laaj naan loolu lu mu demee mu ne xaaral ma nettali la xew-xew boobu mu jëfandikoo baatu naba pour xëcc tuuti attirer attention yow muy déglu ñun ñoo lay nettali dëgg-dëgg bi xale yooyu seen mbir naka la demee xew-xew boobu naka la demee nu mu demee mooy ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan mu ne ñoom gaa yooya ay xale lañ ay ndaw lañ ndaw dafa am solo lool am solo ci lislaam ndax bu ñu gisee yonte bi alayhi salatu wasalaam xadisu sabaatun yudilluhum allahu fi dillih yowma la dilla illa dillu mooy juróom-ñaar ñoo xam ne yowmal qiyaama bu yàlla wàccee jant bi ba mu tiim bokk yi nit ñi di ñaq ñaq bu tara tara tara tara tara tar nekk ci njàqare ak ci métit yàlla dafa am ñoo xam ne da di baaxee ci tàngaay boobu ak ci taxawaay boobu jël leen keral leen ci suufu arsham ker goo xamante ni bi ku fa yàlla dugalul doo fa dugg ñooñu yàlla di baaxee ci dugal leen ci suuf ker googu bokk na ci ndaw loo xam ne dafa jël ak ndawam lépp mu jagleel ko yàlla subhanahu wa taala ci ndaw ci ci ci ci ci ci jaamu yàlla la màgg ndawam caaxaanu ko ndawam foowu ko ndawam doxu ko doxluwu ko da koo jël jaamu ko yàlla ndax loolu dundam lépp ngir loolu la yàlla daf laa sàkk sa dund lépp qul in salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin sa dund ak sa dee yàlla nga ko war a jox lépp yàlla moo ko moom ndax yàlla moo la sàkk ngir loolu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yàlla daf la sàkk ngir nga jaamu du ngir leneen kon loo fi dox moom dox doxlawuloo ko ndaw ñi yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla ne ko ñii ay ndaw lañ ay xale lañ nga gis ne kon am na foofu lu mu fay xëcc tuuti di la ci bàyyiloo xel ndax neewul ay nit aw nit lañ neewul aw nit lañ mais ci biir baat bi mu jëfandikoo daf la cee wan ñoom ci ban tranche d'âge lañ bokk muy ay mag lañ ay xale yu tuuti tuuti lañ wala ay ay jeunes lañ mu wax la ne la innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan ma kon am na foofu benn njariñ bu fa am ci seen melokaan boobu ñu melowoo ne ay xale lañ am na jeexital am na importance bu rëy bu mu am ci li li liñ def ndax nekk ndaw am pastef bu mel noonu yàlla jaral leen ñu def loolu kon loolu lu am am solo la kon foofu tamit dañ fay jële jàng foofu ci ndaw nu mu amee solo ci lislaam nit ki jël ndawam mu def ko ci diine góor góorgóorlu ci ci diineem ndax li nga mën ci sag ndaw mënoo ko ci sag mag li nga mën ci sag ndaw ak pastef bi fi nekk ci ndaw ak cër yi ni muy nangoo ci ndaw ak li nga mën a jariñ sa diine ci ndaw boo demee ba nekk mag dootoo ko mën léegi nag nga ne sa ndaw danga koy jël jox ko seytaane jox ko sa bakkan boo demee ba commencé tële jaaxle xam ne dee mi ngi jege si nga jël li gën a néew ñàkk solo ci sa dund nga soog koo jox yàlla te moom moo la sàkk sa dund gi nga am moom moo la ko jox kon loolu ku ku ku dëgg-dëgg dellooloo yàlla njukkal looloo ko njukkal <coughs> mu daal di wax ne amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan ñoom dañoo gëm yàlla dañoo jug ñu gëm seen borom amanu waxul amanu billah amanu bi rabbihim la wax kalimatu rabb day faral di di di ñëw lu bari ci ci nettali bi lan moo tax ndax seen ngëm gi ñu gëm dañ koo dañ cee tegtaloo ci yàlla bind gi mu bind sàkk gi mu sàkk tàggat gi muy tàggat àdduna bi ñu xam ne loolu tegtal la buy wane ni moom yàlla moom mooy almaabuud mooy ki ñuy jaamu ndax kii seen borom sàkk leen moom leen kooku rek moom lañu war a jaamu keneen ku jaamu wala nga jagleel ak njaamu keneen ku dul sa borom bi nga xam ne moom moo yor sa ruux gi moo la sàkk indi la fi di la wërsëgal mooy faat mooy dundal yaa ngi nax sa bopp ndax moom boobu moom borom boobu rek buur boobu rek subhanahu wa taala mooy ki yelloo ñu jaamu ko amul keneen ku dul moom ku yelloo ñu jaamu ko moo tax bi yéefar yi daan jaamu ay yeneen mbir yàlla de subhanahu daf ne ñoom dañuy jël ay yàlla yoo xam koy jaamu te yàlla yooyu ci boppam dañ leen sàkk comme ñoom ni leen sàkkee sàkkuñu dara ci àdduna bi ci asamaan suuf kon mooy wane ni nekkuñu ay yàlla yu ñu war a jaam <clears throat> wa zidnaahum hudan yàlla subhanahu wa nee na ma dool leen ngëm ma ma saxal seen ngëm ma dëgëral seen ngëm ma dool leen ngëm mooy ne kon ku góorgóorlu gëm yàlla subhanahu wa nekk ci ngëm mu jaral la sa ngëm jaral la ngay def ay sacrifice di góor góorlu di jaamu sa borom di def ay mbir yàlla day yokk sa ngëm yàlla googu yàlla da lay dëgëral ci sa ngëm yàlla googu wa yazidu llahu alladina ihtadaw nga xamante ni bi ñoom ñoo gëm ne ca ngëm ga di kortikëtti di góor góorlu seen ngëm jaral leen yàlla subhanahu wa daf leen di dëgëral seen ngëm googu yokk leen ngëm yàlla moo ne kon boo defalee yàlla benn moom dalay dolli li ngay def sa njariñ la mais dala ciy dolli di la gën a dëgëral di la fay subhanahu wa ta'ala moo ne kon ku góor góorlu ci ngëm yàllam yàlla subhanahu wa ta'ala dolli ko ngëm mu ne wa rabatna ala qulubihim mu dëgëral seen xol mu takk seen fit ndax liñ def fit am na ci wàll muy seen ngëm jaral leen ñu jóg ci loo xam ne kenn mosu ko xalaat ci société bi ñuy dund buur boo xam ne kattan la yor goo xam ne foo ko takk weesu na ko pare pour faagaagal leen léegi ab lim boo xam mën nga leen wàññi ci sa loxo ci ay xale yoo xam ni amuñu benn kàttan mën a weddi li mu gëm saxal ngëm yàlla dëgg-dëgg nekk ci mu jaral leen ñuy jël genre taxawaay yu mel nii loolu il faut que tamit nit ki am fit mu jaral ko yàlla subhanahu wa taala fit woowu mu def ko ci seen xol fa rabatna ala qulubihim ay shaddatna qulubahum wa athbatna qulubahum yàlla subhanahu wa taala dëgëral yàlla subhanahu wa saxal seeni xol mu dëgëral ko takk seeni fit ñu gën a mën a góor góorgóorlu gën a mën a am sañ-sañ ci def lii nga xamante ni moom lañ moom lañ dëppoo ñoom ñëpp yàlla mu ne loolu maa ngi ko def id qaamu wala mu ne ñu dinañ la nettali seen mbir jamono ba ñuy jóg id bi dafay am rapport ak nettali bi mu ko wax ne ko dinaa nettali seen mbir mooy dinaa la nettali seen mbir jamono ba ñuy jóg wala yàlla mu ne man maa dëgër seen xol jamono ba ñuy jóg mooy jamono bi nga xamante ni jug nañ jublu nañ ci seen mbir jamono boobu yàlla daf leen yokku ndëgër lay takk seeni xol ñu gën a am fit ci jublu ci mbir moomu ñuy def fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard ñu daal di taxaw ci seen mbir imma dañ ñoo jug ne nañ jug dox ci wala jug jublu ci mooy mbir mi nga taxaw ci mbir mooy nga taxaw ci def ko te bañ cee nekk di di déngi déngi qaamu fii mën na nekk xaqiqatu qiyaam muy jub fi'lan def li nga xamante ni moom lañ bëgg def daal di ciy jublu comme tamit qaamu bil amr mooy jug ci mbir jugal ci mbir mi même boo toogoon fi nga toog te rek la ko sax dañ naan kon jug na ci kon mën na nekk jug xaqiqatan jug taxaw wala kon jug mooy jublu ci mbir mi lan lañ wax dañ ne rabbuna rabbu samawati wal ard suñu boroom bi nga xam ne moo ñu sàkk moom ñu indi ñu fii di ñu wërsëgal yore suñu njariñ ak suñu lor di ñu tàggat di ñu teete kooku du keneen ku dul boroomu asamaan ak suuf kooku rek mooy suñu rabb léegi loolu benn muqaddima la muy dafa am lu ñu jiital léegi day am natiija mooy léegi dafa am lu ñu jiital ne kooku kon mooy suñu borom léegi bu kooku nekkee seen borom ki nga xam ne moo bind asamaan suuf léegi nag léegi nag kon mooy dootuñu jaamu keneen ku dul moom loolu mooy résultat bi mooy bu fekkee kooku fexleen mooy suñu borom moo ñu moom kon dootuñu jaamu nekkal jaam dootuñ nangu keneen nekk yàlla ku dul moom ndax moom rek moom moo am grade boobu keneen ku dul moom amuloo ko ak loo lu ñu la mën a waxal ak loo mën a am ab jaam nga ci jaamu yàlla yi subhanahu wa taala kon dafa am lu ñu wax am luñ ci lu ci juddoo li ñu wax mooy lii mooy li ñu gëm nekk pas-pas bu wér te ñu tegtaloo ko ci ay tegtal yu yu firnde yu wér yi yàlla subhanahu wa def ci ci ci asamaan seeg suuf seeg ci lépp lu mu sàkk wane ne moom rek moo am kattan ak sañ-sañ ci def lii keneen mënu koo def ku dul moom lu ne mën nga ko waxal waaye ba mu des asama ay mbindeefi yàlla yi moom di nga ko fi bàyyi yàlla rek moo leen moom moo leen sàkk amul keneen kuñ leen mën a askanale ku dul borom bi léegi comme que moom rek moo fi def loolu moom rek itam moo yelloo ñu jaamu amul keneen kuy bokk ci njaamu gi ñuy jaamul yàlla dara lu mu mën a doon mu daal di wax ne laqad qulna idan shatata bu ñu deful loolu ñu yàlla moom képp waaye ñu ne fi di jaamu leneen wala ñu koy boole ak leneen kon wax nañ wax joo xam ne bu sori dëgg la wax nañ wax joo xam ne wax ju sori dëgg la mooy jëf nañ def nañ jëf joo xamante ni teguwul ci dëgg ci ay nar la tegu wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba te kan moo gën a rëy aw fen kan moo gën a rëy aw tooñ koo xam ne dafa sosal yàlla lu dëgg mooy nga ñëw soppi réalité yi am ndax loolu mooy lu dul dëgg dëgg mooy nga wax wala nga def loo xam ni dëppoowul ak li nga xam ne mooy li li réalité bi am li am xaqiqatan mooy yàlla moo def lii moom moo ko moom moo ko sàkk moom rek mooy yàlla ñu jaamoo ko léegi boo jëlee njaamu googu nga teg ko feneen fu dul place am mooy nga jagleel ko keneen ku dul yàlla def nga lu dul dëgg loolu mooy ñoom li ñu wax ne kon buñ ko defee dañuy def lu dul dëgg buñ ko waxee dañuy wax lu dul dëgg laqad qulna idan shatata ash-shatat mooy alqawlu almail alzail an alxaq mooy wax joo xam dafay sori dëgg dafay jëng bàyyi fi dëgg te ñoom nee nañ du ñu def loolu du ñu def loolu kon fii ñoom ñu ngi taqrir pas-pas li ñuy jële fii mooy na ñoom pas-pas ngëm yàlla ñu ngi koy leeral fii di ko détaillé di wane lëkkaloo gi mu am diggante tawxidul rububiya ak tawxidul uluhiya mooy ne yàlla subhanahu wa moom gi mu moom ak sàkk gi mu sàkk lépp lu am moo waral ñu bañ a jël ak njaamu di ko jagleel keneen ku dul moom moom képp subhanahu wa taala moo yelloo loolu muy nekk ilaah nekk ilaah nekk ne moom kase mooy ki ñuy jaamu subhanahu wa taala keneen ku dul moom yelloo loo ñu jaamu la loolu ñoom lu ñu leeral la ci aaya bi ci façon boo xam ne façon bu gàtt la bu leer la itam ci képp koo xam ne seetlu nga ko ñu daal di nag léegi tàmbali di wax ci li am ak li nga xam ne ñoom moom lañu ñu rejeté mettraat ko en cause wax na ñoom lii mënatuñ koo accepter mooy lan mooy li ñu wax ne haulaai qawmuna ittaxadu min dunihi aliha waa léegi li am problème bi am mooy suñu xeet ñi ngi nii ñoom dañoo dem ut leneen lu dul yàlla ñu bàyyi fi yàlla subhanahu wa jël yeneen i biir def leen ñu nekk ay aliha ay yàlla aliha mooy jamaa ilah mooy lépp loo xam dañ koy jaamul askaneel ko ak njaamu ci façon bu mu mën a doon ak njaamu dafa yaatu nit ñi ba léegi déggin bi ñu am ci njaamu dafa nekk lu lu lool yaakaar nañu jaamu daal ñu wax ne yaa ngi koy defal dara mooy ngay dem di ko jullil di sujjóot di rukkoo ak loolu fekk defuloo ko jaamuwuloo ko alors que yàlla dafa am sañ-sañ ak foo foo foo ko war a àggale ci sa xol ak ci gëm gi nga koy gëm ak loo ko war a askanale ci ay mën-mën ak ci ay mbir ak ay kàttan yoo xam ni loolu moom dong moo ko sañ moom dong moo ko mën a am ci yow keneen koo jël nga jox ko loolu nga teg ko ci place boobu loolu jaamu lay tudd mooy yi nga xam ne yàlla rek moo ko jagoo amul keneen ku ñu ko war a jox ku dul moom wala ñu koy defal keneen ku dul moom wala ñu koy njort di ko gëm ci keneen ku dul moom yàlla keneen koo ko gëmal wala nga waxal ko ko wala nga defal ko ko bokkaale la muy da nga koo jàppee ne yàlla la comme yàlla ji ñuy jaamu subhanahu wa taala loolu la ba léegi nit ñi comprendre ul yaakaar nañu shirk bu ñu ko waxee muy bokkaaleeg yàlla ci nguuram gi ci sañ-sañam yi mooy rek lu mel ne ay julleek yooyu nga defal ko keneen te fekk defuloo kon bokkaale waloo sañ-sañu yàlla yi ak yi mu jagoo nga jël ko jox ko keneen mooy bokkaale nga ko ndax loolu moomeelam la subhanahu wa taala léegi ñu ne ñoom seen xeet ñi ngi ni dem jël yeneen yi mbir def leen ay yàlla léegi lan moo waroon am mooy dañu waroon indi léegi ay firnde yuy wane ne lii leen ay yàlla la ndax problème mooy nit ku nekk ku mu neex mën nga jël dara ne li yàlla la di ko jaamu wala nga wax ci lu la neex loolu kenn mënu ko tere kenn mais preuve preuve loolu la yàlla subhanahu wa soxla ci mbir yi in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa abaukum ma anzala allahu biha min sultan ma yabuduna min dunihi illa asma yàlla subhana taala li mu doon wax ci ne yéefar yi nga xamante ni ñooy jaamu leen lu dul yàlla mu ne yi ñu nekk di ko jaamu tuddee ko ay yàlla ñoom ñoo ko ko tuddee jox ko grade boobu jox ko place boobu jox ko tur boobu mais mu ne falañ ca yem muy tur ba falañ ca yem dëppoowul ak réalité bi am parce que amul benn tegtal benn firnde bu yàlla wàcce buy wane ne loolu ay yàlla la kon amul lenn luy firndeel ne loolu ay yàlla la dalika bi anna allah huwa alxaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil yàlla rek moom lak yàllaam gi mu nekk yàlla tegu ci dëgg xaqiqatan keneen ku dul yàlla sax yàlla boo ko wootee wala ñu wootewal la ko teguwul ci dëgg moo tax ñoom ñu ne lawla yatuuna alayhim bi sultaanin bayin hal la ataw bi sultaanin bi adillatin bi xujjatin bayina ala ali ilahiyati haula ndax ñoom du ñu indi ay tegtal ay firnde yu leer yuy wane ni lii ñuy jaamu ni ay yàlla la parce que utiliser force ak doole ci contraindre nit ñi ñu ne dañ koy jaamu loolu rek doyul li gënoon mooy bi xale yi waxee na ñoom dootuñ jaamu lii yàlla seen yàlla ji yàlla mooy yàlla ci sàkk asamaan a suuf buur bi li mu waroon def du utiliser force am mais dafa waroon indi ay ay adil lii xale yi di laaj nii da ko waroon indi indi ay adil la indi sultaan wane ne lii fi'lan yàlla la ju ñu war a jaamu jaamu leen ko man teguma ko nii rek ci di ko def nii jële ko samay maam ñu koy def aw sañ-sañ ci critiquer ko wala ma waxaat ci mais dama ko teg ci ay preuve yu leer laa ko teg ci xel laa ko teg dafa wér nañ lii ay yàlla lañ mais xel sax nanguwul ne loolu dañ ko war a jaamu jël ay yàlla yoo xam yow imma yaak ñoo a yem ci nite wala ñu nekk ay mbindeef yoo xam ne yaa leen di sax dimbali leen defal yenn yi wala yaa tabax wala yaa leen yett nga wëlbatikuwaat ne ñooy sa yàlla loolu xel sax nangu ko laata diine di ñëw moo tax ñoom ñu ne kon foog ñu indil leen tegtal yu wér yu wane ne li yàlla la moo tax ñu ne lawla yatuuna alayhim bi sultaanin bayyin léegi comme que loolu amul nag ay tegtal ay firnde yu amul yuy wane ne dañ leen war a jaamu ay yàlla lañ te loolu yépp terewul ñu leen di jaamu def leen ay yàlla fa man adlamu mimman iftara ala allahi kadiban kan moo gën a rëy aw tooñ ku sosal yàlla ku naral yàlla aw fen kook kan moo ko gën a rëy aw tooñ koo xam ne sosolul nit naralul nit mais yàlla subhanahu wa ci boppam la naral naka lañ naralee yàlla naka lañ ko sosalee mooy ci li ñu doon wax sànq ci soppi dëgg gi dëgg gi am mooy yàlla li yellee fam te moom rek mu jagoo ko keneen bokk kook moom nga jox ko ko àqam la mooy ne moom mooy allah mooy yàlla ji ñu war a jàmm nga jël ko jox ko keneen wala nga boole ci keneen sosal nga yàlla subhanahu wa taala def nga loo xam ne yàlla santu la ko digalu la ko joxu la ci benn firnde kon sosal nga ko ndax loolu waroo ko woon def te amoo ci ndigalu yàlla waroo ko woon def te santu la ko te comme que moom santu la ko dala koo sax tere nga dem def ko kon sosal nga yàlla subhanahu wa taala mooy ne kon ku bokkaalee ci rek fenal nga yàlla sosal nga yàlla subhanahu wa taala te loolu bàkkaar tooñ gënu koo rëy moo tax mu ne wa man fa man adlamu mimman iftara ala allahi kadiban ñu fi taqrirul aqida muy xale yi ni nga xamante ni bi noonu lañ leeralee pas-pas ak tawxid ni mu leeree ci seen ci seen ci seen bopp leer ci seen xol ñu gëm ko ngëmin boo xam ni déngi déngi wuñ ci ci ñaari aaya yi yàlla subhanahu wa taala leeral ñoom naka la ñu leeralaatee tawxid ak li nga xam ne mooy rek li war a am li yàlla ne lii rek moo war a am ci ne yàlla rek la ñu war a jaamu subhanahu wa taala kon pas-pas boobu tamit loolu ci la war a njëkkee ci la war a njëkkee ndax bu ko defaree ba mu rafet ba baax ba ni mu war a mel mu mel ko li ci des lépp dafay daal di yëwan nit ki yeneen cëram yi ci des yépp pas-pas boobu moom moo koy jubbanti moo koy teg ci yoon bu fekkee pas-pas bi nit ki fas ci diineem digganteem ak boromam setul ay xajam-xajam yu bari moo ci nekk naka la ay jëfam yi mu war a jëf digganteem ak boromam di nekkee lu yëwan di tegu ci yoon mënul nekk fokk bis bu nekk muy am ay xajam ak ay torof am ci diineem ak ci ay jëfam ndax xol bi moom mooy jubbanti cër yi comme ni ko yonte bi alayhi salatu salaam waxee ne xol bi mooy cër boo xam ni bu yëwanee ci sa jëmm jëmm ji yépp dafay yëwan mooy bi lu nekkee ci xol bi contenu bi bu fekkee li xol bi ëmb lu baax la lu set la lu sell la pas-pas bu wér moo ci nekk ngëm yàlla gu set moo ci nekk li ci des dafay yëwan parce que loolu lay tegu xol bi moo koy moo mooy jubbanti cër yi mooy jox cër yi ay ndigal ñu koy def waaye bu fekkee loolu setul moom ngir cër yi jubbanteku teg ci jub dina jafe ñii bi ñu ñëwee ñoom ci loolu lañ njëkk wax muy wàllu pas-pas wàllu seen ngëm yàlla ci boppam ak wàllu tawxiid ginnaaw loolu ñu daal di tàmbali nag di wax ci seen plan boobu nga xam tëral nañ ko ngir génn seen dëkk lu tax parce que fitna am na mooy ne kon yow jullit bi xamal ne li nga mën a jàngee fii ba léegi saa boo demee ba sa pas-pas sa ngëm mënatoo ko dund fenn ci kaw suufu yàlla ji yàlla nee na la sama suuf yaatu na lépp man maa ko moom te na nga xam ne man rek nga war a jaamu yaa yaa ibaadi inna ardi waasiatun wa iyaaya faabudun yéen jaam ñi sama suuf yaatu na man ngeen war a jaamu sama suuf yaatu na man képp ngeen war a jaamu loolu lu muy tekki mooy foo nekk am fa jafe-jafe ngir jaamu fa sa borom te looloo tax mu indi la fi demal feneen nga jaamu sa borom ndax lépp suufam la moom moo ko moom loolu kon mooy sa ngëm dalaa war a jaral nga daw ngir rëccale ko comme bu fekkoon tey tey ma ko yàlla ak ab alkande wala musiba dafa amoon ci réew mi wala fenn ci benn dëkk ñaanuñu ko yàlla su suñu dëkk wala ci benn dëkk bu mu mën a doon mu dal fenn ci ab dëkk nga ne fa nga bëgg a muccale sa bakkan wala say intérêt wala sa yaram wala ca lu mu mën a doon nga daal di génn daw ngir mucc ci fitna joojule loolu boo ko defee lu la war la ndax da war a sàmm sa bopp sàmm sa alal sàmm say intérêt sàmm sa njaboot ci bépp fitna buy ñëw di leen dal mais na nga xam ne boo ko defalee say sa yaram defal ko sa njaboot defal ko say intérêt sa diine moo gën a yey ci nga defal ko ko ndax sa diine ci la sa sa teraanga sa texe àdduna ak alaxira nekk looy sàmm rek sa diine moo gën a yey ci nga sàmm ko ni nga xamante ni doo bàyyi ñuy addu kalpe sa sa sa alal sa xaalis nga ñëw lu mel ne weer dee ñu fay la sa salaire wala sa bourse wala lu mu mën a doon nga def sa poche xam ne fii ay agresseur fi nga romb fi ñu nangu sa xaalis doo ko nangu doo dem di jeter sa bopp di sànni sa bopp ci genre danger yu mel noonu ndax bu dara mën nañ la dóor gaañ la wala nga xeex fa gaañ gaañu fa wala ñu jël sa alal bëggaloo ko bëggaloo ko sa bopp bëggaloo ko sa alal naka noonu sa diine sa diine da nga war di xool sa diine di ci fiir lépp loo xam ne gis nga ni menace la buy jëm ci sa diine di am lenn lum ci xajamal di ko yàq sa pas-pas sa digganteeg sa borom daf la war a tax a daw daf la war a tax a daw dafa war a tax nga ut daal di koy teg sa digganteeg loolu ngir mën a sàmm sa diine mais nit ñi lu ne jaral na leen lu ne ba mu des seen diine lu ne dinañ ko sàmm lu ne dinañ ko yittewoo dinañ ko nemmeeku ci seen bopp di ko nemmeeku ci seen i nekkaale ba mu des diine te diine jooju moom moo gën a précieux lépp lu ñu mën a am fii ci kaw suuf ndax moom mooy li tax sax seen existence fii ci kaw suuf mooy dëgg-dëgg li tax ñu ñëw fii te itam ci la seen ëllëg di yëwanee te ëllëg googu mooy ëllëgu faaw boo xam ne amul fu mu yem bu baaxee baax na ba faaw bu bonee bon na ba faaw ñoom ñu daal di wax ne wa id i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min duni illah wa id i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allah fa'wu ila alkahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa dem leen ca xuntuma ngeen beddeeku leen ngeen daw leen ngeen bàyyi fi seen xeet wala saa bu ngeen leen beddee ko ba daw leen ba bàyyi leen fi daldi dem ci xunt ma léegi nag jaamu leen yàlla subhanahu wa taala ñaar yëpp mën na ci nekk mooy saa bu ngeen demee ba def lii ba génn dëkk bi ba bàyyi leen fi ak li ñuy jaamu bu ngeen demee ci xunt ma léegi nag ngeen jaamu seen borom comme ni ngeen ko bëggee wala mu nekk ne wax ji li muy tekki mooy bàyyi leen leen fi ngeen génn bàyyi leen fi ak li ñuy jaamu li ñuy jaamu mën na tekki yàlla yi ñuy jaamu comme mën na tekki jëmmi jëf yi mooy seen jaamu yi ñuy def di ci tëgg ak di ci way ak di ci fecc ngeen bàyyi ko fi ñaar yépp mën na dugg ci wa ma yabudun illa allah parce que ma imma mu nekk la wala mu nekk masdariya mooy ne bàyyi leen fi ak seen njaamu gi ñuy jaamu bu fekkee masdariya la wala bàyyi leen fi ak li ñuy jaamu la nga xam ne moom la ñuy jaam mooy seen yàlla yi kon bu ngeen leen fi di bàyyi du ngeen leen fi bàyyi ñoom rek parce que am na ay mbir yu jafe yu dox seen digganteeg ñoom ngeen mere leen mais da ngeen leen fi di bàyyi ne leen fi kopp ñoom ak seen yàlla yi nga xam ne ñooy sabab ci problème bi am seen yàlla yi nga xam ne ñooy sabab ci problème bi am seen digganteeg ñoom ngeen i'tizal leen mooy ngeen beddeeku leen ngeen daw leen bàyyi leen fi léegi nag bu boobaa fa'u ilal kahf dellu leen ci xuntu ma mu mel ne kon xuntu moom dañ koo xamoon parce que àll la àll boobu lañ tuddee àll lil ahdi dhihni mooy loo xam ne dañ naan la waa ji ñëw na nga xam ban waay lañ lay wax parce que waay ji ñëw na ñu fi toog ñëpp ku ne mën nañ la wax waa ji mais waa ji ñëw na mooy kon am na ku ngeen doon xaar buñ nee waa ji ñëw na rek sa xel day dem ci kooku naka noonu xunt dafay mel ne kon préparé woon nañ ko ba xam ne ci place sàngam la nekk léegi fa la ñu war a dem buñ nee ilal kahfi ci xunt ma rek mooy ne kon seen xel yépp daan yar ci benn place boo xam xam nañ ne fa la ñu war a dem ndax buñ toogoon rek ne ilal kahf tey suñ ne woon nañ dem ca xunt ma ku nekk boo jógee naan waa ban xunt la waa ji doon wax mooy ne kon ñoom am na xunt mu précis bu ñu xam ne fa la ñu waroon dem pour rawale fa seen diine loolu ñuy def di génn seen dëkk bàyyi seen njaboot bàyyi seen seen lépp dem te yàlla rek tax ñuy daw ngir rëccale seen diine yàlla rek subhanahu wa taala tax doomu aadama sax boo ko defanoon loolu mu récompenser la mu fey la sacrifice boobu nga def ngir moom kay fa ci yàlla mi nga xamante ni subhanahu wa taala duñ ko sax utal ay misaal di ko jox exemple ci nit ndax weesu na foofu subhanahu wa taala nga defal ko sacrifice bu toll nii ak dëggu gu toll nii mu xam ko ci yow xam ko ci sa xol moom subhanahu wa taala dina la woon ne la li nga def nii xam naa ko gis naa ko te yëg naa ko moo tax ba loolu amee buntu yërmande yi buntu xéewale da daal di tijjeeku nga gis ne Ibrahim ba mu ba mu ba mu bàyyee xeetam ndax bàyyam da ko tàmbali di ko menacé ñu indi ko ay jafe-jafe mu ne bàyyi naa leen ak li ngeen di jaamu dinaa nag beddeeku leen ñaan sama borom amaane na su ma ñaanee sam borom dina ma wuyu yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ko xéewal ko defal ko njaboot barkeelal ko njaboot njabootam gi ñëw ci ginnaam yépp ay yonente lañ moo tax ibrahima ñu koy tuddee abul bachar te dund na lu yàgg mënta am doom ñu ñëwaat ginnaaw ibrahima yépp ci sëtam lañu bokk ci yonent yàlla yi amul yonent bu ñëw ginnaaw ibrahima dund na bokkuloo ci ay sëtam te njaboot googu yàlla mi nga ko may ginnaaw bu mu defee sacrifice boobu bàyyi dëkkam bàyyi baayam daal di beddeeku ngir ngëm loolu nag tegtawul ne fasaa bu ñu ne benn ñaar nga wax ci wàllu diini ak say ñaale rek ne kon naa def ni xisatu asxaabul kahf defoon lii dafa am sabab dafa am lu tax mooy dañ dem ba danger am xew-xew bu rëy am menacé nañ leen utiliser nañ force amuñu beneen pexe ñu jëfandikoo lii mais la chaque ne jullit des ci biir ay mbokk am di jariñante ak ñoom donte dañ koy lor muy muñ loraange yooyu moo gën moo tax yonente bi sallallahu alayhi wax ko ci xadis muslim ne almuminu alladi yuxaalitu nnaasa wa yasbiru ala adahum xayrun min almumin alladi la yuxaalitu nnaas wala yasbir mu ne ku gëm yàlla nekk ci biir jullit ñi di jaxasoog ñoom di jëflante ak ñoom di muñ seeni loraange ndax njariñ lu ngi leen mën a jariñ digal lu baax tere lu bon nekk boobu ngay nekk seen biir nee na loolu nga def ko moo gën fuuf ci ki nga xam ne dafa beru rek moom baax na boppam ci boppam la ko yemale sequl ak nit ñi dara jaxasoowul ak ñoom munta muñ seeni loraange mais nag boo demoon ba sa sa diine moom mooy nekk loo xamante ni mooy loroo ci jaxasoo gi ngay jaxasoo ak ñoom nga ci yàqule sa diine bu boobaa lislaam may na la nga jël tuuti say distance kon lii loolu moom moo nekkoon sabab bi léegi ñoom ñu daal di wax ne bu ngeen ko defee yanshur lakum rabbukum min rahmati yàlla dina leen sottil dina leen wàccel ci ay yërmandeem moom subhanahu wa taala te dina leen jàppandalal seen mbir lu baax loo xamante ne di ngeen ci mën a jariñoo ci seen mbir dina leen ci defal lu baax loo xam ne mirfaqan ay ma tartafiquuna bihi wa tantafiuuna bi loo xam di ngeen ci mën a jëriñu ci seen mbir ci seen mbir mooy mbir mi njàqare lii ngeen nekk nekk ci ci ay torof torof yàlla na leen ci utal bunt xool la ca gën a baax la ca gën a nekk njariñ mu jaarale leen foofu mu jariñ leen njariñu àdduna ak njariñu alaxira mën na nekk tamit ci seen mbir mooy seen mbir yépp seen mbiru àddina yépp moo xam li ngeen ci séq ak seen xeet wala lu gën a yaatu loolu yàlla moom dina leen ci teete xool la ca gën a yëw la ca gën a baax mu daal di koy def kon noonu lañ daal di duggee ca biir xuntuma jubluwaay bi moom mooy loolu yàlla subhanahu wa taala faye leen tamit wàcce gi mu wàcce ci ñoom yërmandeem ak tamit defal leen ci seen mbir ak gindeeku mu tàmbali nag di nettali seen nekkin ci biir xuntuma ndax biñ del biñ duggee ci biir xuntuma yàlla subhanahu wa dafa daal di nocc seen i ruux fatt seen i nopp mooy ne kon ci nelaw la leen tàbbal ndax nit ki bu nelawee deegu ndaw la nekk fatt seen i nopp ndax moo gën a dëgër ci ñu bañ a daal di teel a xim ndax loolu bu ñu ko nettalee xëy na dañuy xaw gaawal mbir yi yaakaar naa léegi julli jotee yaa te bu jotee dañuy taxaw. tayib kon nañ def noonu. ala kulli xaal léegi biñ nekkee noonu ci xunt mi dafa am xunt mi dafa am bunt léegi bunt bi jant bi bu ñëwee da koy romb bu ko rombee day tàppe ci ndeyjooru xunt bi ci ndeyjooru bunt bi buy xëy ba jant bi buy buy so buy soleñ wala buy fenk jant bi buy fenk dafay tàppe ci ndeyjooru xunt bi ndeyjooru bunt bi léegi ndeyjooru bunt bi mooy booy dugg côté bi lay féete ndeyjoor foofu la naaj bi di tàppe bu ko defee bu jógee naaj bi di xëccu di xëccu di xëccu di leen romb di leen romb ba jant bi di so buy so naaj bi mi ngi tàppe ci càmmoñu bunt bi càmmoñu bunt bi léegi kon muy ndeyjoor ak càmmoñ ndeyjoor ak càmmoñ di leen romb te naaj bi du leen laal am na ñu ne naaj bi lu tax du leen daal mooy noonu muy tàppee ci ndeyjoor buy buy fenk buy soo tàppee ci càmmoñ ginnaaw bi yetta xallas muy xëccu baat ci ci diggu jant ci diggu asamaan si romb leen loolu li muy wane mooy kon euh, jëmmi bunt bi ci boppam muy buntu xunt mi dafa féete woon ci noor ci noor muy bët gànnaar la féete woon noonu la jàkkaarloo ndax noonu la leen jant bi di mën a rombee buy xëy naaj bi tafu ci ndeyjooru bunt bi buy so naaj bi tafu ci càmmoñu bunt bi ku mel ne alxaafid ibn kathir loolu la wax mais lenn si borom yi xam-xam dañu wax ne loolu mën nañ koo nangu ba léegi waaye tamit bu ñu xoolee li yàlla wax ne zalika min ayatillah yàlla li mu wax ne loolu mu def ci ay kéemtaanam la bokk moo ko def mu bokk ci ay kéemtaanam ne naaj bi doonu leen woon lakk ngir yàlla mun leen sàmm sàmm seen i yaram te du tere naaj bi jant bi dina leen dina leen romb ak lenn ci ci naajam ci tàngooram ndax seen yaram da koy soxla ngir seen yaram yi bañ a yàqu ndax nekk bi ñu fa nekk deewuñu mu nocc seen i ruux ñu dee daal di fënax comme ni mu ko defee woon ci ay nit mais dañu meloon ne ñuy nelaw te war a rester lu yàgg loo xam ni seen i seen yaram dara waru cee soppeeku dara waru cee yàqu bokk na ci benn mooy ne seen i bët fàttewul seen i bët tëjuwul wa taxsabuhum ayqaadan wa hum ruquud boo ñëwee gis leen nañu toogee woon ci xuntuma da nga yaakaar dañuy nelaw fekk na ñoom ñi ngi xoole wala boog da nga yaakaar dañuy dañuy xoole fekk na ñoom ñi ngi nelaw koor gaa commencé jàpp da nga yaakaar ni dañuy dañuy dañuy xoole fekk na ñoom ñi ngi nelaw lu tax parce que seen i bët tëjuwul beneen bi mooy bunt bi ni mu def tijjeeku ŋàpp ngelaw li di dugg di ëpp seen di ëpp seen i yaram wa nuqallibuhum daata alyamini wa daata alchimal yàlla subhanahu wa taala nee na ñu leen di wëlbati ndeyjoor ak càmmoñ mooy bàyyiwuñu leen benn place nit ki bu nekkee ci yenn feebar yu metti yi tëdd ci lalu hôpital da ngay gis dañ koy faral di wëlbati ndax yaram bi bu tëddee benn côté dafay dem ba cëri foofu dafay ni muy tancoo deret ji day am problème pour romb pour jàll ba noppi tamit euh, jëmmi yaram bi daf ci am ay yenn mbir yu nekk ci yaram bi yoo xam ni dafay wàcc jëm ci côté boobu daal di fay toog lu yàgg loolu dafay paralyser cër yooyu ngir paralysie boobu bañ am yàlla nee na ñu leen di wëlbati ñu leen di wëlbati zaat al yamini wa zaat al shimal jihat al yamin jihat al wëlbatiku ba pare naaj bi di dugg te du leen lakk lakk lakk ci boppam yàq seen yaram yi waaye dina leen sànni leen ci ay ceeñeeram te du leen laal ñàkk laal boobu leen ci borom xam nee nañ tegtalewul ne xëy na buntu buntu kaaf bi daa féete nii wala nii mais loolu ci kéemtaani yàlla yàlla ci boppam moo téye naaju jant bi ci boppam mu bañ a nekk luy laal direct ci seen kaw loolu yàlla subhanahu wa taala nee na ñun ñoo ko def nee na seen xaj bañ àndaloon ma nga tëdd ci buntu ba ci buntu kaaf bi boo duggee rek nee na fa xaj bi tëdd tàllal ay ñaari tànkam baasitum diraihi bil wasid ñaari tànkam ma ngi ko tàllal ci buntu kaaf ba tëdd boo ñëwee ni nga koy fekkee mu tëdd noonu ñoom ñu tëdd seen bët ubbeeku nee na boo ñëwee ci anam boobu këf bi ne selaw ab tiit moo lay dugg boo xam ne day fees dell ci sa yaram bi law italata alayhim la wallayta minhum firaaran wala mulita minhum ruba da ngay tiit neen na da ngay daw sax ba pare soog a tiit parce que firaar bi la jiitu ci tiit bi mooy léeg-léeg nga gis dara tiit daw ba mu yàgg sa xel dellusiwaat nga ñëwaat mais bii du noonu bii def ne dangay daw la wallayta minhum firaaran ba pare tiit soog laa jàpp maanaa boo di nga daw sax ba sori soog a gën a imaginer waat mbir mi ni mu ragloo man léeg-léeg nga gis benn scène ñëw toog lu yàgg tiit bi soog laa gën a jàpp nga soog a gën a imaginer mbir mi ni mu ragloo parce que ba nga koy gis amoogoo woon xëy na sang froid ak pour mën a am temps bu la may nga nga nga xool ko ba gën a raglu tiitaay boobu xëy xëy a boobu muy anam boobu ñu nekkee woon dafa tiit lu ba boo ko xoolee mulita minhum roba mooy tiit rob gi gën a tiit bi gën a tar moo lay dugg ba fees la dell jàpp la ba bari da ngay daw yàlla subhanahu wa def leen ñu nekk ci anam boobu ñu nekk ci ay ati ati at nombre at yi nga xam ne lañ fa nekk yàlla subhanahu wa taala wax nañu ko ci alquran ba léegi ci saar bi ne def nañ fa ñetti téeméeri at ci anam boobu mu ne ginnaaw loolu yàlla subhanahu wa taala wala ba jële leen ci dekkal leen ñetti téeméeri at ci ati ati ati jant bi mais ñetti téeméer ñetti téeméeri at ak juróom-ñett wala juróom-ñeent bokk ci ati weer wi ci ati weer wi ndax téeméeri at bu nekk ci at bi ñu tuddee lunaire mooy bi nga xamante ne mooy bu jant bi mooy bi ñuy xisaab bi ñuy natt ci ci jant bi boobu ñett téeméeri atom yu nekk dafay ëpp bi nga xamante ne dañ koy natt ci weer wi ñetti at muy at bu nekk da koy ëpp fukki fan ak benn at bu nekk dina ko ëpp fukki fan ak benn boo ko kontee ba muy téeméeri at dina nekk ñetti euh, ñetti at bu dee kon ñetti téeméeri at la dina ko ëppee kon 9 ans muy juróom-ñetti juróom-ñetti juróom-ñetti at wala juróom-ñeenti at laa bëgg a wax bokk juróom-ñeenti at moom moo tax mu ne wa labithu fi kahfihim thalatha miatin sinina wasdaadu tisaa thalatha miatin sinin muy trois cent ans lañ fa def mais dolli nga ci juróom-ñeent bu fekkee da koo compter ci at yi nga xam ne ati ati weer wi la nga dolli ci juróom-ñeent ñu nekk fa ci anam boobu yàlla subhanahu wa nee na ma dekkal leen ma jële leen ci seen dee googu ñu nekkoon ndax nelaw dee la mooy rakku dee la nit ki bu fekkee dafa nelaw mën nañu wax ne dafa dee mais dee ndaw la nee na bi ñu ca nekkee ci anam boobu ak anam bu ratlu boobu ak ni ko yàlla nettalee ak lim ci wane def lépp ci ay xar baax ak ci kàttanam moom borom bi subhanahu wa taala ci téye seen i ruux diir boobu yépp ñoom dekkee bi yàlla delloo seen i ñu dekki mënuñu xam ñaata at lañ fi def ñoom bi ñu dekkee dañuy ci seen biir kenn ku nekk di laaj sa morom naan ko ñaata lañ fi def ci ci temps ndax mbir mi da leen xaw a jaaxal tuuti ay nelaw yu ne la sarax nga dugg ci am xuntu xamuloo loo nelaw amuloo xëy na loo mën a euh, sukkandiku pour xam li liñ fi def ñuy laajte ci seen biir biñ laajtee ñenn ci ñoom ne def nañ fi ab bés wala xaaju bés ci liñ jàpp ñeneen ñi ne yàlla rek a xam yàlla rekk xam boobu ñenn ñi wax jàng la buy wane ne yow jullit bi lépp loo xam ne da ciy sikki sàkk amoo ci xam-xam bu la leer bul wax lu la leerul dellool xam-xam bi ci yàlla subhanahu wa taala mooy kii xam lépp moom moo xam boo xamulee bul waxal yàlla loo xam ne xamuloo ko neel yàlla moom moo xam rabbukum aalamu bi ma labistum nekk fi di lijjanti lu ñu fi def ak lu ñu fi deful amul njariñ ndax loolu nekkul suñu loxo mais li ñu amal njariñ nañ ko lijjanti mooy lan mooy xiif nañ xiif nañ loolu lañ xam léegi nag nañ ut lu ñu lekk nañ ñu lekk loolu moo gën a yitteel ñu fiy nekk di lijjanti ñaata at lañ fi def ñu daal génne ku nekk nee nañ ku nekk nee ñu génne ab dërëm ab xaalis boo xamante ni ci xaalis wurus lañ ko tëgg ñu jox ko kenn ci ñoom ne ko demal ca dëkk ba loolu boroom xam-xam yi dañuy waxaat ba léegi ne des si jàngee ne ko nit ki del sabablu mooy ne ñii bi ñuy génn yàllaa leen tax a génn yàlla dina leen wan yoon ñaan nañ yàlla def nañ yépp matuwaay waaye yóbbaale nañ yóbbal ndax jël nañ xaalis ñu defaale ko seeni poche yóbbaale ko pour bu ñu soxlaa bëgg a lekk wala ñu soxla dara ñu mën a jënd faj seen soxla kon génn ñu noonu rek ak loxoy nen xissa bi lu bari lañ ci mën a wax ala kulli xaal ci xaj bi wax nañ xaju kan la am nañu ne xaj bi ab sàmm moo ko moom bu daan sàmm ci àll bi di ci rëbb ñu romb mu topp leen am nañu ne xaj bi cuisinier bi daan toggal buur bi moo ko moom dafa bokk ci ñu tuuboon bokk ci ñu menacé mu ànd ak gaa yi daw xaj bi topp leen mais topp bi leen xaj bi topp yàlla subhanahu wa taala sabab boobu tax na mu tudd xaj bi ñeenti yoon ci alxuraan loolu di wane ne kon ànd bu baax lu am solo la ibnu kathir nee na xaj bi mbiram xas na ba yëkkatiku ci sababu gaa yu baax yi mu àndal kon nit ku ne war nga di ànd ak nit ku baax ngir mbaax gi mu nekk jariñ la te nga ko ànd bu bon loolu tamit lañ ko fi jàngee mooy ne ab xaj bokk ci bàyyi ma yi gën a doye di gën a ñàkk solo yàlla dem ba di ko tudd ci alxuraan di wax ci mbiram ku jàngate alxuraan di ko jàng xaj boobu des ku di continue di tudd desu ko fàtte ba keroog yomal xiyaama ci sababu ay nit yu baax yu mu àndaloon mooy ne kon ku baax rek moo jara àndal del xool ñi nekk ci lu baax di dund lu baax gëm yàlla seen ngëm jaral leen yenn mbir yi ngay ànd ak ñoom ngir ay njariñam njariñu ànd boobu mënoo ko sax xam li nga ci mën a xam lu tuuti la mais li nga ci mënta xam lu bari la mooy mbiru xaj boobu kon léegi ñu taxaw foofu ba ju julli bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi xaqa xamdi wasalaatu wasalaamu ala rasulihi wa abdih nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wafdih ñu ngi woon ba léegi ci qisatu ashaabil kahf ci bi ñuy wax léegi ci njàngat yi ñuy jële ci àndandoo ci yàlla subhanahu wa taala lum ñu wax ci seen mbir mu ne wa kalbuhum baasitun diraaihi bilwasid xaj bi nga xam ne moom la asxaabul kahfi àndaloon nekkinam bi nga xam ne moom la nekkee ci bunt bi yàlla subhanahu wa taala tudd ko ci quran ñu waxoon ne alxaafis ibnu kasir day wax ci ne xaj bi am na aw tur am na aw tudd am na mbir ba noppi ci ànd bi nga xam ne àndoon na ko ak euh, gaa yi ni ñu jële ci ne kon naka ndake ànd lu jara tànn la dinañ dinañ bàyyi leen kon ànd lu lu lu jara moom mënuma wax mënuma wax ci yàlla subhanahu wa taala di wax ne moom moo leen dekkal ci naka noonu leen dekkalee ci anam boobu ñu nekkee woon li yatasaalu baynahum mu ne léegi lan mooy xew mooy dañuy laajte laajante ci seen biir li yatasaalu baynahum laam boobu laamu sayruura la wal aqiba mooy na kon dañuy daldi laajante ci seen biir lan lañuy laajante qaala qaa'ilun minhum kam labithtum am kenn si ñoom ku wax ne ñaata ngeen fi des fii ñaata ngeen fi nekk qaalu labisna yawman aw ba'da yawm ñu daal di wax ñenn ci ñoom du ñëpp ñenn ci ñoom daal di ne fii de liñ fi des liñ jàpp ne def nañ ko fi ci ab lim ci ab ab ab bis lay lay war a doon wala sax xaaju ab bis maanaam lenn ci bis ba'da yawm waxul waxul moitié bi waxul un quart waxul un tiers mais def na rek lenn ci ab bis mooy kon matul bis xëy na bis wala lu gën a néew bis moom lañ fi def ndax ñoom dañuy à peu rek li ñuy wax amuñ ci lu leen leer lool li ñu foog loolu la ñuy wax qaalu rabbukum a'lamu bima labithtum ñeneen si ñoom ne yàlla moom moo xam li ngeen fi des li nga xam ne def ngeen ko fi ci ab ab yàlla subhanahu wa taala moom moo ko xam kon ñaari kuréel la wala muy benn kuréel mooy ñoom ñi njëkkoon doon jéem xam ñaata lañ fi des ñoo dem ba ci biir xam ne suñ ko waxee wax nañ lu ñu xamul ñu delloo xam-xam boobu ci yàlla subhanahu wa taala mooy lu ñu doon wax léegi ci ne kon yow jullit bu fekkee mbir gaar na la amoo ci xam-xam dellool xam-xam bi ci yàlla nga ne allahu aalam yàlla moom moo xam te nga bañ wax loo xam ne xamuloo ko léegi ñu daal di wax ne kon fabaatu ahadakum bi wariqikum hadihi ila al madina ñun li ñu xam te mën koo lijjanti mooy suñu mbir loolu mbir moomu ñun xamuñu ko ñaata lañ fi des loolu moom mënuñu koo xam léegi li ñu mën a xam mooy ne xiif nañ aajowoo nañ nañu lijjanti loolu léegi mooy nañ yabal kenn ci ñun mu dem ca dëkk ba dal ñuy utal lu ñu lekk ñu jox ko wariq muy ab xaalis boo xam dañ koo tëgg ci wurus ci xaalis bu ko defee mu dem tànnal ñu fa ci lekk dafa gën a sell gën faa baax ci wàllu sell mu utal ñu ci indil ñu bu ko defee ñu mën koo lekk ndax dañoo xiif te itam na tey na def ndànk ci dem bi muy dem fexe bañ bañ koo repérer bañ koo xàmmee ndax comme que buur bi xuppoon nañu menacé ñu ñu daw génn làqatu fii léegi kenn si ñun buy dem itam dëkk ba na xool bu baax yoon yi muy jaar def ndànk ba bañ bañ koo xàmmee bañ koo repérer loolu kon mooy ñoom xamuñu lu xew ndax diggante boobu ñu naan bis la wala xaaju bis la ndakate ay ati ati ati at jaar na fi nguur ga jóge na fa beneen nguur ñëw fa beneen nguur ñëwaat beneen nguur ñëw ay génération jàll nañu lépp ñoom yëguñu ko ñu ngi ci xuntu mi li lay won ne la xamuñ ci dara mooy ñu yebal kenn naan ko na def ndànk na xool yoon yu muy jaar ndax bu demee gars yi bañ koo xàmmee ñenn nañ wal li muy tekki mooy na xool bu baax ci njaay mi muy jaay ak ki muy ki muy ki muy ci ki muy jënd mu tey ci mu timit oyof ci yëwanal ci bañ koo nax bañ a nax ci ki nga xam ne moom lay jënd mu mel na kon dañuy dénk ki nga xam ne moom la ñuy yebal pour mu jëflante jëflante bu baax ka muy jëflanteel bu demee ci marché ba ñaar yëpp tekkee tekk tekkee nañ ko ko mooy na xool bu baax ni muy def ci buy dem fexe ba làqatuñu bañ koo xàmmee wala buy jë buy jënd itam mu bañ a nax ca ka jënd mu njaayanteeg moom njaay moo xam ne wala mu jënd ci moom jënd moo xam ne bu yëwan la mu daal di wax ne wala yushiranna bikum ahada ngir mu bañ a def loo xam ne dina tax kenn ci ñoom yëg ne yéen a ngi fii kon ñoom loolu lañ jublu woon ci loolu ñu ko doon dénk aaya bi boroom xam-xam yi déggee ci ne kon naa mën a batale nit am loo xam ne da nga koo bëgg a def nga wax nit mu defal la ko sa place ñu koy tuddee ak tawkiil muy loo xam ne lu mel ne jënd dara wala jaay dara nga jël ko responsabiliser responsabiliser si nit ne batale naa la ko mooy jox naa la ko léegi yow yaa ma koy jëndal yaa may jëndal wala yaa may jaayal bu la ko defalee ci sa place ci lislaam day wér aaya bi bokk na ci tegtal yooyu bokk na ci firnde yi donte lenn si borom xam-xam yi am na ay wax yu sew yu ci wax ku mel ne Abu Xanifa mathalan rahimahullah moom dafa gis ne bu fekkee ñaari nit dañoo jàppante am problème ñu yóbbu ko ci juge bi war a leen àtte kenn ci ñoom warta batale muy wax kenn mu ñëw toogal ko place ñoom ñaar ñëpp war a ñëw toog am ci borom xam-xam yi ñu gis ne même xataa bu dee loolu la bu batalee jox kenn place am mu ñëw toogal ko fa ba léegi loolu mën a nekk la li wér mooy ne fii ñoom sas nañ kenn ci ñoom tànn nañ kenn ci ñoom ñu wax ko ne moom na dem mu jëndal leen mooy ne kon dañ ko yabal pour mu jëndal leen ci seen ñoom ñëpp mënuñu ànd dem mu defal leen loolu yàlla subhanahu wa taala nettali ko ci quran ñu daal di wax ci sabab bi tax ñuy koy wax pour mu teey pour mu def ndànk ngir ñu bañ leen yëg mooy kon ba léegi gis nga tamit ak bopp muy nit xataa bu fekkente ni da ngaa wekku ci yàlla lonku ci yàlla war warta tax nga bàyyi say loxo noonu war nga jël jël say matuwaay jël say def ay sabab ndax tey boo ne woon da ngay génn dem ci yoonu yàlla moo xam looy def mais ci yoonu yàlla nga ko tuddee te matuwaay yi ci war defuloo ko looy mujjee ci nit ñi ngay mujj sukkandiku ndax loolu yàlla subhanahu sant loo yàlla dafa la sant nga def tawakkul mooy nga lonk sa xol ak sa xol ci yàlla subhanahu wa taala waaye li la war ak li nga xam ne yow loolu mooy sa mëneef yow doomu aadama nga def ko li ci des nga bàyyi ko yàlla subhanahu wa taala mais li la war defaloo ko léegi nag ne lépp dama koy xaat ci yàlla subhanahu wa taala loolu daw say say say say say responsabilité la daw say taxawaay la beneen bi ci des tamit mooy li ñu koy wax naan ko ngir mu teey def ndànk ba ñu bañ leen a yëg moo ne ba léegi tamit pexe ak def say matuwaay ngir aar sa bopp du dàqonteeg ne ku ku wóolu yàlla nga ku ku wakkirlu ci yàlla nga xataa bu fekkee na nga wakkirlu ci yàlla ci say noon jël la fexeel ak yu mel noonu terewul tamit ba léegi nga jël say matuwaay bañ a defee nenn noo xam ne day tijjil ci ñoom bunt ngir ñi mën ci yow yoon ñu daal di wax ne innahum in yadharu alaykum yarjumukum ndax ñoom saa bu ñu xamee ni yéen a ngi fii in yadharu aleykum mooy in yattaliu aleykum mooy saa bu ñu xamee seen nekk bi ngeen nekk fii yar ju yarjumukum dinañ leen faat ci faat yi gën a bon ci façon faat yi ju yarjumukum mooy dañ leen di sànni ay doj ba ngeen faatu dinañ leen sëkkatoo comme niñ koy niñ ko daan defee sëkkatoo di sànni ay xeer di sëkkatoo ndax ñëpp leen dencal aw mer dëkk ba yépp wax nañ seen i mbir ba toog di leen xaar xamee ni yéen a ngi fii ba fekk si leen fii mooy dinañ leen sànni sànni sànni sànni ba ngeen faatu kon ar rajmu bil xijaara muy faat leen ci sànni leen ay xeer wala ar rajmu bil qawl wala dinañ leen sànni ay kaddu yu bon loolu tam ba léegi dina tekki yarjumukum mooy di xas di leen saaga di wax wax wax bu bon jàpp leen léegi nag daal di leen delloo ci dëkk ba li gën a firndeel ne wala li gën a dëgëral ne liñ namm ci yar yarjumukum mooy di leen sànni ay xeer ngir faat leen mooy lim ci teg ne aw wala ndax aw mën na tekki wala mën na tekki itam ak mooy mën na nekk atf comme mën na nekk li tanwi lil mughayara mooy ne buñ deful loolu yu'idukum fi millatihim dinañ leen delloo ci ñoom seen diine ja ñu nekk muy seen yoon wa ñu nekk milla mooy yoon wa nga xam ne ñoom ca lañ nekk lañ nekk di ci jaamu yàlla subhanahu di ci jaamu di ko def ci ay jaamu ak ay jëfi diine loolu lañ tuddee milla ñoom léegi imma ñu faat leen wala ñu delloo leen ci lañ nekkoon kon mooy imma yéen ngeen nangoo dellu ci ñoom la ñu nekk ci bokkaale yàlla subhanahu wa taala kenn ku dul moom bu ngeen ko deful dinañ leen faat ci sànni leen ay doj ba ngeen faatu te bu boobaa walan tuflixu idan abada bu boobaa du ngeen texe mooy bu boobaa réussiru leen li ngeen bëggoon amoo leen ko moo xam fii ci àdduna wala alaxira léegi loolu borom xam-xam yi dañ ci déggee ne kon forcé gi ñu leen forcé ci ñu delluwaat ci diine ja ñu nekkoon jëriñu leen dara li tax jëriñu leen dara mooy nit ki tey bu gëmoon yàlla ngëm yàlla gu wér ñu forcé ko ci kéefér yàlla du ko ko toppee alors que fii ñoom li ñu wax dañ ne walan tuflixu idan abada loolu pousse yenn borom yi xam-xam ñu ne kon raful ismi bil ikrah min xasaisi ummati muhammad alayhi salatu wasalaam mooy ne la fekk ñu forcé la ci dara bugguloo ko yàlla teggil la bàkkaar ba ndax dañ la caa forcé loolu ci xeetu Muhammad la ko yàlla baaxe ñoom rek ci ñoom la yem mooy ne kon xeet yu jiitu yow woon ñoom yàlla daawul leen teggil bàkkaar ci sababu forcé ndax gis nga yonte bi alayhi salatu wasallam mi ngi nettali ab xadis ci aw xeet woo xam ne dañoo utoon ab yàlla teg ko ci benn place ku romb ñu ne la defalal suñu yàlla bi benn sacrifice boo ko defalee sacrifice ñu bàyyi la nga jàll boo ko defalul sacrifice ñu rey la benn waaye romb ñu ne ko defalal suñu yàlla bi sacrifice mu bañ ne loolu bokkaale du ma ko def du ko def ñu rey ko kooku texe ñu rey ko ci dëgg mu texe ndax fekk siw leen ci loolu keneen ñëw ñu ne ko defal ko sacrifice mu bañ ñu xupp ko ne ko defal ko sacrifice donte ab weñ sax ab weñ nga koy reyal mu reyal ko ab weñ seen yàlla boobu daldi faatu dem safara faatu bi mu faatu dem safara ci weñ boobu mu reyal yàlla boobu te dañ ko cee forcé loolu am nañ ci gën a sukkandikoo ne kon mooy xeet yi njëkkoon ñoom bu buñ leen mësaan a forcé ci dara nga def ko bàkkaar ba yàlla dala koy toppee xeetu muhammad la yàlla baaxee alayhi salaatu wasalaam nit ki bu gëmoon ngëm yàlla ko wér ñu forcé ko ci bokkaale def loo ko ko te bugg ko xol bi ngëm yàllaa ci nekk yàlla du ko toppee bàkkaar boobu naka noonu xattaa ci yeneen jaamu yàlla ci nekk ak yu mel noonu buñ ko ci bi ñu koy tudde al ikra muy forcé moo tax yonente bi alayhi wax ci xadis bi euh, l'imam ibnu maaja solo ne inna allaha tajawaza lii an ummati alxata wa nisyan wa ma sukrihu alayhi yàlla jéggalal na ma sama xeet jéggalal na ma boobu mu wax ne tajaawaza lii am na ñu ci gën a tegtaloo ne kon loolu day wane ne loolu moom ab jagleelam la yonent yu jiitu woon amuñu ko moom la ko yàlla defal ci xeetam mooy teggil leen bàkkaaru force mooy bu ñu la forcé ci dara wala loo xam da ngaa juum def ko wala nga fàtte def ko ñu daal di wax ne wa kadalika yàlla subhanahu wa taala ne wa kadalika asarna alayhim li yaalamu anna wa'da allahi xaq yàlla subhanahu wa taala di tàmbali di ñu wax jubluwaay wala lenn ci jubluwaay yi taxoon mu def mbir mii ngir jamono jooju weddi dekki dafa xewoon dafa tasoon nit ñi gëmuñu woon ne nit bu deewee dina dékki loolu moo doon problème bi léegi yàlla subhanahu wa taala def lii ngir firndeel ne ne yéen bu ngeen faatoo di ngeen dekki ndax yàlla jox nañu ba bataay ci alquran ay jàng wan nañu ne ndax du ngeen gis suuf mu jékki jékki wow koŋu dara nekkul ci kawam yàlla wàcc ab taw mu taw gàncax gi génn ginnaaw bu fa dara nekkewul woon mu ne noonu may dekkale suuf ginnaaw bu mu deewee woon noonu laa leen di dekkalee ginnaaw bu ngeen faatoo maa ay misaal la dalay jàngal di la wax ci exemple mooy loolu nu mu ko defee noonu la noonu la koy defee ci mbindeef yi jamono ji tamit ñii li doon seen problème li gënoon tas gën a siiw bokk na ci mooy weddi ne nit ki bu deewee du dekki yàlla subhanahu wa taala mu ne ñoom asxaabul ka fa ñu nekkoon làqatu fa yàlla mënoon na leen fa téye ba mu neex ko mu dekkil leen faat leen kenn dootul xam seen mbir dara kenn du xam fu ñu mujjee waaye retrouvaille bi la fekk yàlla subhanahu wa def ci ci ci mën-mënam ak ci xereñam ba ñu gisee waat ba xam ne ndakate gars yi ñoo demoon ñu leen di wër ay génération génération ku fi ne ba fiy jógee nettali ko say sët ñu koy nettalante di ko nettalante ba tey yàlla def ñu ñëwaat loolu dafa am lu ci yàlla jublu woon muy ab jàngale ci sababu ab dërëm boo xam ni ki dem dem na dugg na ci dëkk bi gis na ni lépp changé na amatul lu mu xam ci dëkk bi léegi li mu xamoon lépp soppeeku muy xool waaye ba léegi amul lu ko leer ndax dafa réer ndax dafa jaawale yoon ndax dëkk bii la jóge woon mi ngi posé wu ay question ci biiram mais amul lu ko leer ndax yoon yi soppeeku na kër yi dëkkuwaay nit ñi ñi muy gis xamu ci kenn te ci dëkk bi la jóge woon démb rek pour moom démb rek ci dëkk bi la jóge bi mu demee ba ci marché bi mu def liñ ko waxoon fexe def ndànk dem ba ci ab jaaykat gis fa lekk ci moom ñëw wax ak moom waa ji na ko fayal mu génn jox ko foofu la mbir mi feeñee bi mu génnee xaalis bi jox ko waa ji xool ko ne ko yow li ngay def ni mooy lan faux billet ne ko xaalis bi nga may jox ni baaxul lii xaalis bi ba ñuy wax ay waxam ña ña ko tëggoon faatu nañ ba ñu fàtte seeni mbir ñu wax ci wax ji bu jaaykat bi leer ko ni kii jubluwul nax ko mais dafa foog ne xaalis bi moom la ñuy mu am lu mu soupçonné xam ne kon am na lu xew wax ji tàmbalee jóg ñu àggale information bi ci buur bi wax ji àgg ci moom bi wax ji àggee ci buur bi buur bi nag ne lii laa doon xaar ndax moom ku mës a ñëw rek wax nañ la mbiru gaa yooyu ngay séntu ndax dinañ mës a am ji ci ñoom benn nouvelle ndax ba léegi ay disparu lañ leen jàppee kenn xamagul ba léegi ndax faatu nañ wala seen mbir fu mu mujjee biñ leen ko nettalee gars yi daal di ne loolu moom dañ ci daal di taxaw léegi dem fekk ji leen fañ nekk xam seen mbir loolu mooy sababu daje bi biñ dajewaat yàlla ne wa kadhalika asarna alayhim ñun ñoo def ñoom ñu gisaat leen ñu dajaat leen li yaalamu anna wa'da allahi xaq ngir ñu xam ne digub yàlla dëgg la yàlla li mu dig nit ñi du ay nax lépp dëgg la dina ko def moom subhanahu wa taala wa anna saata la rayba fiha li mu wax ne dina dekkeel jaam yi dig leen ne képp ku jëfoon lu baax mu fayaat la say jëf comme yow jëmm ji doon dund fii ci àdduna ginnaaw ba nga dee mu delloo la sab ruux taxawalaat la ngay jëmm ne jamet yàlla xisaab la fey la say jëf yu baax yi nga doon jëf sa jëf yu bon yi nga doon jëf loo ci yellool yàlla subhanahu wa taala wan la ko nga gis ko bu lay jéggal jéggal la bu la koy fay fay la ko ndax danga nga koo yelloo subhanahu wa taala boobu dara du ko wutal digub dëgg la ngir ñu xam ko mu nekk lu leer ci ci ci seen bopp ñu xam itam ne saa muy jamono jooju waxtu woowu yàlla di wax jàmm ñi naan leen dina mës a ñëw mooy waxtu wi fi lépp di jóge dund dootul am ci kaw suuf lépp lu fi nekkoon di dund faatu ginnaaw ba yàlla subhanahu wa boo ko toogee ab diir mu dekkil jaam ñëpp mbindeef yépp delloowaat leen loolu ab dëgg la nekkul ay nax moo tax mu ne wa anna saata la rayba fiha ñu xam itam ci qissatu ashaabul kahf jële ci jàng yi fay jàng ne loolu du lu ñuy sikk du lu ñuy am sikki sàkk du lu nit di sikki sàkk ndax yàlla moo moo ci giñ yàlla moo ko dikk ne dina ko def te dara du ko wuutal ab digu yàlla la ab digu yàlla la dara du ko wuutal subhanahu wa taala njàngale boobu mooy jàngale bi gën a rëy bi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala jublu na ko ci qissatu ashaabil kahf mais am na yeneen njàngale yu bëri yoo xamante ni am nañ ko ci ci biñ jàngatee qissa bi ci taxawaayu xale yooyu ci seen âge seen farlu seen góor góorlu ak yi yiñ jël yépp ñu def ba yàlla subhanahu wa def ci ñoom mbir mu mel nii lu ci nekk lépp ay jàngale la ci pas-pas bu wér bi te ñu ñëw rek ne nañ def renversement daaneel état bi nañ def lii na yépp defuñ ci benn dañuy jéem a fexe sàmm seen pas-pas comme que ñoo néew kàttan amuñu kàttan ñu rawale seen ngëm ngir bañ ñu fitnaan leen gaar leen ci fitna ndax fitna dafa tar yow jullit bi wóoru la ndax fitna ngay dékku naan na ñëw bu ñëwee di ko àttan moo tax yenn borom xam di wax naan laa yajuusu lil mumin an yacrida nafsahu lil fitan wusuqan bi nafsihi bal yasalu llah an aafia yonente bi alayhi salatu wasalaam ci gazwatu tabuk bi ñu waree daje ak ruum ci guddi gi dafa ñëw taxaw tim saxaaba yi ñu war xëy daje seen noon mu wër leen xool leen ba mu yàgg ne leen laa tatamannaw liqaa al aduw leen mbébét daje ak seen noon ndax fitna la fitna yi deret fitna yi jaasi fitna yi lépp fitna la wóoru ba xam boo ba ci biir ndax sa ngëm dina mën a sax nga des wala ndax dangay ngay dellu ginnaaw mu ne bal bal isalullah al afiya ñaan leen yàlla mu muccal leen ñaan leen yàlla mu muccal leen ginnaaw bi nag mu ne bu ngeen demee baa moo leen ci pexe ngeen jaamaarloog ñoom mu ne na ngeen muñ te ngeen sax te xam ne aljana mi ngi ci suufu jaasi yi loolu kon mooy nit waroo gaar sa bopp ci fitna am nga ngëm yàlla am nga am nga ngëm am nga diine ay fitna mi ngi dem ci sa kaw jéemal fexe nga moytundiku fitna yooyu la ndax wóoru ba xam boo ci duggee ci biir ndax di nga mën a wéy ci sa ngëm googu wala déet ndax fitna dafa tar fitna dafa tar fa muy tàmbali ak fa muy yem bokkul ñu daal di tàmbali ñoom seen biir nag léegi di wax naka la ñuy def ak gaa yooyu naka la ñuy def ak xew-xew boobu ndax mbir mi lu rëy la yàlla subhana taala mu ne fa qaalu bnu alayhim bunyaana rabbuhum aclamu bihim qaala alladina galabu ala amrihim lanattaxidanna alayhim masjida am ay proposition yu tàmbali di génn ñenn ñi si ñoom ne léegi dañuy daal di jël bërëb ba nga xamante ni fa lañ nekkoon ci kaafu ba ñu daal di koy tabax defar ko ba mu rafet ñu daal di koy def bërëbu jaamukaayu yàlla def ko ab jàkka dafa dem di julli di fa ñaan ndax ñi fa ñu nekkoon bërëbu xéewal la gis nga mbir yu commencé di génn ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo dominé ñoo ëpp kàttan am na ñu ne mooy ñi nekk ci nguur gi nga xam ne seen proposition boobu ñu wax ñoom mën na bañ a dëppoo ak diine mais ñoom loolu lañ jàllale ndax ñoo ëpp kàttan ñoom ñoo wax ne dinañ fa tabax jàkk ñoom ñu joxe proposition boobu yenn borom xam-xam nee nañ du ñàkk ne ñu gëm yàlla lañ ndax ñu gëm yàlla ñooy faral di wax ne nañ tabax jàkk waaye jëmmi jàkk ba ñu wax ne dañ ko fay tabax nekkul pas-pas bu wér nekkul gisin bu set nekkul gisin bu wér ndax tabax jàkka ci bërëb ay xabru ak ay bërëb yu nit ñu fa nit faatoog bërëb yu mel noonu ay bërëb yu xar baax di fa séentu yiw ak di fa séentu ay barkeeg yooyu dem fa di ñaan ak di def yenn yi bokk na ci bunt yu gën a gaaw a tijji bokkaale gis nga li tàgg tàbbal bokkaale ci kaw suuf yooyu bokk na ci comme na ko Abdullah ibn Abbas waxee ci li yàlla subhanahu wa wax ci kaana annaasu ummatan waxida faxtalafu nit ñi bi dañ nekkoon benn kuréel benn xeet nekk ci jenn dine bi yàlla yebale aadam mu ñëw fi ci kaw suuf ñu nekk ci lu war a tollook fukki génération am na ñu ne fukki siècle ginnaaw loolu shirk tàbbali tab tàmbal tàbbi ci kaw suuf nit ñi daal di daal di wuute yàlla ci la yebale noox alayhi salaam mu nekk yonent bu njëkk a ñëw ngir woote jële nit ñi ci bokkaale yóbbu leen ci sellal bokkaale googu tàbbi woon ci jamono yu noox li ko tàbbaloon bokk na ci yu mel nii mooy dafa am ay gaa yu baax jiñ doon wax naan laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaxuusa wa yaxuuqa wa nasra juróomi tur yooyu ñi ñuy wax ci suratu noox gaa ya naan seenu xeet bu leen bàyyi seen yàlla yii jaamu leen leen téye leen leen bu baax lii leen noox di wax bu leen ko dégg ñii gaa yu baax woon gaa yooyu noonu fexlan ay gaa yu baax la ñu woon abdullah ibn abbas nee na ay gaa yu baax la woon daan jaamu yàlla nekkoon ay nit yu baax ñu faatu seytaane jël jëmu nit ñëw ci seen i xet ne leen yéen gaa yu baax yi delloo woon leen njukkal ndax nekk nañ seen biir di jaamu yàlla baax baaxaay goo xam ne waroon ngeen bu ñu fi jógee ngeen delloo leen njukkal defal leen ay genre statut tabax leen ci façon boo xam ne da leen di mën a jëmmal ci seen biir pour di leen fàttaliku pour bañ leen fàtte ndax ñu mel ni ëpp nañoo fàtte léegi seytaane fu mu leen dikkee delloo leen njukkal bañ leen fàtte ak yooyu fekk leen la taxoon ñu teg fa loolu nit ñi commencé dootu xamatuñ ko di ko fàtte loolu mooy lan mooy lu génération yi di ñëw xuraafaat yi rumeur yi tàmbali di dugg cause yi exacte yi taxoon ñu tabax mbir yi teg ko fi tàmbali di réer ci nit ñi ñu commencé di gëm ne léegi yi ay yàlla loo xam suñu maam yi dañ ko doon jàmm defuñ ko fi woon nii seytaane ñëwaat ne leen gis nga seen yii nii yéen xamoo leen li njariñu àddina ak alaxir yépp ci lii la nekk jaamu leen leen seen maam yi leen fi defoon dañ leen fi defoon di leen jaamu pas pour orner leen fii teg leen fii nii rek ban njariñ la ngeen leen fii bàyyi ñii njariñ àdduna ak ci ñoom la nekk gaa yi commencé di leen jaam loolu moo tàbbal shirk mooy xar baax nit ku baax bërëb sàngam dem fa tàmbali ñuy def yooyu moo tax kon ba lii xew-xew bi amee l'islam du digle ne nañ def ay jàkk def fa di jaam dañ koo tere moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam rëbb yahudi yi ak nasaraan yi bokk li tax mu rëbb leen mu ne mooy ay nit lañ yoo xam ne bu nit ku baax neewee ci ñoom di dund ci ñoom ba faatu dañuy dem fa mu faatu ñu def fa jàkka def fa ab jaamukaay yàlla di fa jaamu yàlla taal fa ay sondeel ak yu mel noonu mu rëbb leen moo ne kon loolu jëf bu bon la jëf la boo xam ne ci bokkaale lay yóbbu nit kon lii ñoom ñu def nii du taxawaay boo xamante ne taxawaay bu ñu gërëm la donte ñu ëpp kàttan ña seen kàddu jëm kaw ñoom digle nañ ko def nañ ko itam léegi yàlla subhanahu wa taala tàmbali di wax yarhamukallah wuute bi nga xam ne nit ñi wuute nañ ko ci limu gaa yooyu wuute bi yamul rek ci lim bi yàlla subhanahu wa taala moom ci lim bi la wax waaye nit ñi wuute nañ ci leneen lu dul lim bi xam ka alhamdulilah ndax leneen li ñu wuute bokk na ci mooy fan la fi bi nekk nit ñi wax nañ ci mufassirun yi wax nañ ci wax yu bari yoo xam ni lenn ñëwu ci ci alquran lenn ñëwu ci sunna ñi ci wax ñëpp li ci ëpp ci li ñuy wax ci toxal yi ñuy toxal di ko jëlee ci banu israil ci li ñuy sukkandiku te loolu nekkul ay sukkandikukaay yu dëgër jordani ci booru Jordanie Cham ak ay Palestine foofu ñu tuddee Cham foofu la nekk côté yooyu am na sax benn boroom xam-xam scientifique ci jamono yu mujj yi bu ne moom gis na ay traces yu wane ne foofu euh, la kahf bi nekkoon mooy gis na trace kahf boobu ñu doon nettal ci Quran am borom xam-xam bu yàggoon ci Andalus booru Espagne jamono yi nga xamante ne l'islam law na foofu borom xam-xam bu ne woon moom dem na ba gis fi kahf bi nekkoon ba gis ay jeexital yu koy wan ne fii lañ nekkoon borom xam-xam yu bari weddi ko ne nekkuñu woon foofu. kon loolu ute nañ ci ute ci fiñ nekkoon ban xeet lañu am sax ñu utewaat ci xaj ba nu mu meloon melokaanam ak ban tur la tuddoon ak yu mel noonu lu ci nekk ci ay ay tegtal ay nettali yoo xam dañ koy jëlee ci banu Israël ci dañuy sukkandiku mais nekkul loo xam ne lu sukkandiku ci xal alxuraan la ak sunna noppi ca moo gën ndax boo ci xuusee tamit wax ci daanaka doo ci wax loo xam te itam nettali ñu ci nettali nekkul lu dëgër loolu mais li nga xam ne ute nañ ci itam te yàlla subhanahu wa am am ci lu mu ñu ci wax mooy seen seenub lim lim ba nga xamante ni bi ñoom ñoo nekkoon ca xuntuma mu ne sa yaquluuna thalathatun dina am ñu ne la dina am ñu wax ne ñett ñoo fa nekkoon ñett lañu woon seenub xaj bi ñu àndaloon moo leen ñeenteel rabiuhum kalbuhum loolu benn kuréel gu wax la muy wax bu njëkk mooy ñu ne ñett lañ ke leen tollanti ñeenteel leen mooy xaj ba kon ñoom ñi nit ñi ñett lañ woon wa yaquluuna xamsatun am itam ñeneen ñuy wax ne juróom lañ saadisuhum kalbuhum seenub xaj moo leen di tollante di leen juróom benneel kon mu tëb ñeent dafa wax ñett tëb ñeent dem juróom maanaam dina am ñu ne ñeent ñett lañ dina am ñu ne juróom lañ waxul ne dina am ñu ne ñeent lañ dina ñu ne ñett lañ dina am ñu ne juróom lañ ka leen juróom benneel mooy seen ab xaj bañ àndaloon nga gis ne xaj bi fi tuddaat na ko yeneen ñaari yoon ginnaaw bu nga ko tuddee woon tuddaat na ko yeneen ñaari yoon muy ñett des na benn muy ñeenti yoon lépp ñu koy tudd ci alquran ngir ànd bu baax boobu nga xam ne ànd na ko ak gaa yooyu la mu daal di wax ne rajman bil ghaib mu ne wax yooyu ñu wax waxi kuy sànni ab wax la boo xamante ne teguloo ko fu leer rajmu bil ghaib mooy nit ki di wax wax joo xam ni da koo sànni noonu rek mel na kuy def euh, jeu de hasard li muy wax tegu ko sukkandiw ko fu leer di xool ba xam noonu la wala du noonu wa yaqdhifuuna bil ghaibi min makanin ba'id mel na ku jël ab xeer rek sànni di xool ba xam dal na wala dalul te fi mu dal sax xamuloo ko rajman bil ghaib yàlla subhanahu wa taala melal ñaari wax yooyu ne ca la mu tegu du lu leer ay wax la ñu wax noonu rek sànni ko ña ko wax amaluñ ko ay firnde amaluñ ko tegtal loolu kon nekk weddi bu mu weddi ñaari wax yooyu ne du ñu ñett du ñu juróom mu nekk kon weddi fi'lan buy wane ne asxaabul kahf seenub lim du ñett du juróom ginnaaw loolu mu continué waat ba léegi ci ute bi ute bi ñu ute ci ñaata lañu woon mu ne wa yaquluuna sabaatun dinañ wax itam ne juróom-ñaar la ñu woon thaaminuhum kalbuhum ka leen tollanti juróom-ñetteel leen mooy seenub xaj waxaatul ne rajmam bil xayb waxaatul ne wax jooju wax la ju ñu wax te amaluñ ko tegtal dañ ko wax sànni ko noonu waxaatul loolu wax na ko ci ñaari wax yu njëkk yi mais wax bu mujj bi waxu ko ci def ne rek pour rabbi aalamu bi iddatihim waxal ne sama borom moom moo xam seenub lim ñaata lañ woon wa ma yaalamuhum illa qalil ñu néew ci nit ñi ñoo leen xam-xam seenub lim kon mooy am na ñu leen xam abdullah ibn abbas ne ana min al qalil kaanu sabaa ne bokk naa ci xalil yàlla subhanahu wa di wax ne ñu néew ñooñu ñoo xam seenub lim mu ne man bokk naa ci juróom-ñaar lañu woon fi'lan juróom-ñaar lañ te loolu la alquran saxal ndax bi mu weddee ñaari wax yële ci junj ko wane ne du ñaari wax yoo xam ne yu dëgër la bi mu waxaatee ñetteelu wax bi ne juróom-ñaar lañ woon weddiwu ko def na rek dellool xam-xam bi ci yàlla ndax ñi xam ci nit ñi ñaata lañu woon bariwuñ ñu néew ñoo xam ci seenub lim muy saxal ne fi'lan kon juróom-ñaar lañu woon Abdullah ibn Abbas ne man bokk naa ci lim bu néew boobu juróom-ñaar lañu woon. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla subhanahu wa taala daal di koy wax ne ko dellool xam-xam ba ca yàlla nga tëj buntu dàggee ci loola bul ci nekk di werante ak ñoom xamal ne juróom-ñaar lañu woon ka leen tollanti woon du seenub xaj. la ca des nga delloo ko ci yàlla ndax nekk ca di werante amul njariñ moo ne kon jullit booy werante ci wàllu xam-xam ak di gëstu di ci di def sa temps danga nga koy def ci loo xam ne boo ca jógee mu amal la njariñ ci yokkute ci sa diine ci xam boo xam ne da ko yokk mu yokk la ci sa diine wala loo xam da ko fay mën a jógee jëf ko fa gis nga sànq asxaabul kahf bi ñu toogee di lijjanti ñaata lañ fi def ak ñaata lañ fi deful tooguñ fa jëmale déwén di wax rek mais bi biñ gisee ne xamuñu ko te amuñ ci lu leen leer te nekk fi di wax loolu lijjantiwul mbir mi dañ ne nañu lijjanti li ñu mën a lijjanti mooy xiif nañ nañ wax kenn mu dem utal ñu lu ñu lekk moo gën ñu fii ne di werante ci loo xam ne amaluñ ko xam-xam loolu dafa war a nekk kon jàng bu jullit di jàng ci loolu mooy ne bul nekk di wax nii rek pour wax yore culture générale bu bari ku ne dégg déglu nga ko dégg nga lu bari liir nga lu bari ngay di wax discussion yoo xam ne amul njariñ rawatina bu dee ci diine lay dellu ndax wax ci diine wax ci yàlla la looy wax lu nekk daf la da nga ko war a xam ba pare mu nekk lu am njariñ mooy wax joo xam ne jëf moo cay juddoo da ngay wax pour am ay résultats am lu la jariñ mais pas pour wax nii rek pour wane sa xam-xam ak pour wax wax ju bari moo tax yàlla subhanahu wa taala a wax yonent bi alayhi salatu wasallam ne ko fala tumaari fihim illa miraan zahira wala tastafti fihim minhum ahada ab dàggee sax bul ci nekk di dàggasante ak ñoom bu mënta ñàkk na nga ci wax li nga xamante ni bi loolu la la ci sa boroom wax nga tënkee ko ni ñu la ko waxee nettali leen ko te noppi ca bul dépasser loolu fala tumaari fihim illa miraan dahira mooy li mu ci wax ci xam-xam te yàlla wax la ko ci waxal loolu te bul ko dépassé mais dàggasante ci nekk ci di ci wax ak ñoom muy waa ahlul kitab yi nga xam ne ci ñoom la kuffaaru Quraysh jëlee qissa bi ndax ñoom lañ demoon laaji ji leen ko te ñoom rek ñoo war a mën a dàggasante ak moom ci qissa bi ndax kuffaaru Quraysh ñoom xamuñ ci dara mu ne bul ci nekkati di ci dàggasante ak ñoom wala tastafti fihim minhum ahada bul ci dem ci kenn ci ñoom di am loo ko ci laaj di ko jële ci moom ndax ku ñuy laaj danga war a tane ki lay laaj te moom lim ci xam ñoom xamuñu ko kon amul lu mu ci war a mën a jële ci ñoom moo leen ci ëpp xam nañ ko déglu mu waxal leen fañ ci yem fam ci yem ñi yem ci foofa comme que moo leen ko gën a xam nettali na leen ko buñ ci dàggasante ak moom bu leen fekk si ci dàggasante ñaareel bi tamit mooy amul lu mu ci war a jëlee lu mu ci war a mën a jëlee ci ñoom ndax moo leen ko gën a xam yàlla wax yu na ko ko xamal ko ko amul lu leen ciy laaj ndax kuy laaj da ngay laaj ku la tane te moom li mu ci xam xamuñu ko ci comme ñoom ñoo war a ñëw di ko ci laaj moo tax mu tere ko ñaari mbir yooyu delluwaat di ko yedd ci lim defoon ci lu njëkk mooy sabab bi taxoon xissa bi ñëw mooy bi ñëwee laaj ko ko ci tàmbali bi ne ko dañ bëggoon nga waxoon ci ñetti mbir yi mu ne bu subaa dinaa leen tontu ci li ngeen ma laaj mooy bi an nadr demee ak uquba demee fële laajte mbir yi ñëwaat ñu laaj ko ko daf ne bu ngeen ñëwee suba naa leen laaj deful liñ tuddee al istisna mooy mu wax insha allah comme ni mu daan dalee dalee woon yonente yàlla Suleymaan moo tax nee nañ jullit jaan du ko màtt ci pax ñaari yoon yonente bi alayhi salatu wasallam daf daan jàng lu ko yàlla xas ba jàngal benn yoon jeex na du tàbbiwaat ci njuumte loolu mais ci tàmbali bi comme que l'islam mi ngi soog a wàcc moom yàlla di ko wax yu yàlla moom mooy jublu loolu def loolu yàlla mënoon na ba muy wax naan leen dem leen bu subaa ma tontu leen mu ëf ci xelam wax yu ci xelam ne ko waxal insha waaye yàlla moo ko seetaan yàlla moo ko bàyyi ci lu yàlla namm ci ab jàng ab jàngale bu mu bëgg a jàngale boo xam ne dina gën a am solo mu fàttee wax insha allah waxu ko wax yu toog fukki fan ak juróom wala lu ko ëpp ñëwul loolu metti ko loolu tiis ko léegi loolu bis bu wax bi ñëwee jox ko li mu soxla woon ba pare na ko boo waxatee waxal insha allah est-ce dina ko fàtteeti ginnaaw bi mu dajee li mu daj kon nga gis ne foofu am na jubluwaay bu rëy rëy ak mbir mu rëy rëy bu fa nekk ci njàngal moom nga xam ne yàlla subhanahu wa taala jàngal na ko yonte bi alayhi salatu wasalam fii yonente yàlla Suleymaan loolu daloon na ko moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam bi ko loolu dalee moom itam ay jamono mu ne yonente yàlla Suleymaan loolu mës na koo dal ci war a sëyeeg ay soxnaam ne dina sëyeeg ñoom wax ab lim ne bu sëyeeg ñoom kenn ku nekk ci ñoom dina ëmb am doom joo xam ne dina ci juddu di jihaad fi sabilillah waxul insha allah am na ci yenn riwaaya def ne malaaka bi ko waxal insha allah waxul insha allah mu sëy ñoom ci guddi gi kenn ci ñoom amu ci doom kenn moo ci ëmb am ci doom te doom ji matul doom ji matul la mu jur du nit matul xaaju nit la jur yonente bi alayhi salatu ne bu waxoon insha allah dina la ma waxoon dina dina am muy soxnaam yooyu mu sëyaloon kenn ku nekk dina ci jële doom fi'lan doom joo xam ne dafay dem di jihad fi sabilillah bu fekkoon wax na insha allah doon na ko génne ci loolu mu dugg tàbbi ca mooy waxu ko loolu amul dina dina ci am dina ko def ba pare yàlla subhanahu dina ko defal dina ko defal loolu mu doon bébét loolu mu doon bébét moo tax yàlla subhanahu di wax fi yonent bi alayhi salatu wasallam ne ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan bul waxati lenn ne dinaa ko def bu ëllëgee mooy dinaa ko def ci lii ñëw ci jamono parce que gadan fii wax nañ ne namuñ ci jëmmi suba suba rek mooy ne kon boo nee damay def dara gannaaw suba bokku ci gannaaw suba ak suba ak gannaawaati suba ci yem mooy rek damay def dara moo xam sax ngoon la ci loo xam ne ñëwagul boo koy waxati na nga ko nanga ko aj ci coobare yàlla na ko aj ci coobare yàlla illa insha allah mooy na wax ne dinaa def nangam insha allah mooy ci coobare yàlla bu soobee yàlla nangam dinaa ko def mooy aj ko ci loolu loolu la ko yàlla subhanahu wa taala jàngal mu ne kon jullit ndakate say jëf yépp ci machiatullah la tegu ci coobare yàlla subhanahu wa taala la tegu ci ndogalam la tegu loolu wàllu ndogal yooyu noonu am na lu jàll ci biir xissa bi loo xam ne wareesoon na cee mën a taxaw donte dafa nekk bunt boo xam ne dafa xaw sew tuuti muy ci yàlla subhanahu wa taala li mu wax ne man yahdi llaahu eh, wala innahu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan maa ngi jàng beneen bi wa zidna hudan hum hudan foofu am na ay masail yu bëri yu fa am yenn yi ci wàllu pas-pas lay delluwaat ci buntu ziyaadatul iman wa nuqsaanihi muy yokkuk ngëm yàlla ak wàññeekoom mooy na ngëm yàlla fi'lan dafa bokk ci pas-pas ahlu sunnati wal jamaa dafay yokk comme ni muy wàññeekoo ngëm yàlla day yokk comme ni muy wàññeekoo nit ki bu góor góorgóorloo def ay sabab ngëm yàllaam yokk naka noonu tamit bu sàgganee ci diineem def yenn sabab yi ngëm yàllam dafay doyadi ngëm yàllam dafay wàññeeku naka noonu itam wàllu njub gi yàlla subhanahu wa di jubbanti nit ñi lu wér la ne yàlla subhanahu wa moo yor njub mooy jubbanti ku ko soob képp ku mu xam ci yow njub mu gën mu jubbante la subhanahu wa taala ku yelloo ak dëng ci maandutem mu seetaan la nga nga sànku mu daal di koy wax na ko wadkur rabbaka ida nasit te na nga ko sa borom saa boo xamante ni fàtte nga mooy boo fàttee fàtteetee dara na nga tudd sa borom loolu kon li muy tegtale mooy na kon nit ki bu fekkee dafa fàtte na tudd yàlla bu fàttee dara na tudd yàlla loolu kon mooy bu la mu ne ba fàbbi sa xel ci dara fàtte la na nga tudd yàlla waqul in an yahdiyani rabbi li aqraba min hada rachada te itam na nga wax ne yàlla subhanahu wa dina ma jubbanti teg ma ci lu gën li nga xamante ni moom laa fàtte min hada mooy ay minal mansi ci li nga xam ne moom laa fàtte yàlla dina ma ko wutal donte fàtte naa ko mu wëlbati ma teg ma ci yoon wu may yóbbu ci lu gën li ma fàtte loolu lu muy séntu ci yàlla subhanahu wa di ko ko ñaan la wala min hada rachada mooy li ko dal nii ci qissatu ashaabul kahf kon mu mel ne wax ji muy wax ak moom ci loolu la aju mooy ne boo fàtteetee na ngay tudd sa borom subhanahu wa taala nga ñaan ko nga wax ne amaana yàlla subhanahu wa taala jële ma ci li yóbbu ma ci lu gën loolu mooy ne li la yàlla jox ci xéewal ci lislaam ak alxuraan ji mu wàcce ci yow ak ci ay kéemtaan yàlla dina la ci jox lu gën foofu li nga xam ne moom moom lañ lay laaj ci qissatu ashaabul kahf bi mu waxee ak loolu yonte bi alayhi salatu wasalaam ci biir nettali bi mu doon nettali ba noppi mu continué ci wax ji mooy ne kon mel na ni xissa bi ñu doon nettali taxaw na tuuti wax ak yonente bi alayhi salatu wasalaam tuuti ci jox ko ay jàngal yoo xam ne moom moo ciy jariñu aw xeetam tamit jariñu ci ci wàllu jëflante ak borom bi subhanahu wa ci wàllu teggin yi nit ko war a tegginoo digganteem ak boroomam ci delloo ko mën-mën ak sañ-sañ ci lépp lu am ci kaw suuf ak asamaan yi dara du fi am lu dul ci ay ay ndigalam subhanahu wa taala jullit kon ay jëfam da ko war a wàcc da ko war a acc mën-mëni borom bi subhanahu wa taala ak ci coobaree borom bi subhanahu wa ndax moom lu ko soob mu am lu ko soobul du am ci nguuram gi subhanahu wa taala mu delluwaat ci qissa bi mu ne walabisu fi kahfihim thalaatha miatin sinina wasdaadu tisaa mu ne des nañ ci seen xunt mooma mu askanale leen xunt mi ne kahfihim waxul fil kahf waxul des nañ ci xuntuma mais des na ci seen des nañ ci seen xuntuma mel na léegi xuntuma ñoom ñoo ko far moom mel na ñoo ko far moom ndax yàgg bi ñu fa yàgg ak nekk bi ñu fa nekk dem na ba léegi xant xuntuma mu neex leen mu naqari leen seen xunt la ñoom ñoo ko moom mu ne wa labisu fi kahfihim thalaatha miatin sinina wasdaadu tisaa ñetti téeméer ci ay at wala nga dolli juróom juróom-ñeent su fekkee wàññi nga ko ci yeneen yeneen beneen façon wàññi mooy bu fekkee wàññi nga ko ci ati ati jant bi mu jox la ñetti téeméeri at boo ko wàññee ci ati weer wi mu jox la ñetti téeméer yu teg juróom juróom-ñeent mooy waxoon ci ne at mu nekk dafay ëpp fukki fan benn atu jant bi bu nekk dina nekk atu weer wi ak fukki fan ak benn boo ko defee téeméeri at muy kon téeméeri at yu nekk ci ati jant bi ñaata la ci ati weer wi téeméeri at ak ñett nga multiplier ko par 3 kon bii nekk téeméeri at ak juróom-ñeent bii nekk téeméeri at kepp loolu moom moo tax mu net mu tudd ko ci ñaari lim yooyu yëpp muy limu jant bi ak limu weer wi ndax benn bu ci nekk day dox te bu ci nekk ab doxam dañ ci wàññi bis yi ak ak fan yeeg guddi yeeg yooyu di ci wàññi wàññi weer yi di ci wàññi at yi bu ci nekk mënees na cee sukkandiku kon li mu waxoon ne li taalamu adad sinin wal xisaab da ngeen ciy sukkandiku ci dox jant bi ak weer wi ngir di di wàññi fan yi ak ak weer yi ak at yi mu daal di wax ne qulillahu alamu bi ma labisu xam-xam boobu itam delloowaat ko ci yàlla kon du caagante nit ki boo delloowee ab xam-xam ci yàlla rek mooy da nga koo xamul xatta li nga xam mën nga ne yàlla rek moom moo xam mu nekk teggin boo xam ne yàlla subhanahu wa mi ngi koy jàngal yonte bi alayhi salatu wasalaam ci bunt bi muy buntu xam-xam ci anam yu bari gis nañ ko sànq ci qissatu ashabul kahf ñoom seen bopp ba ñu jaxasoowee ci ñaata lañ fa des dañoo delloo xam-xam bi ci yàlla biñ yàlla subhanahu wa taala wax yonente bi lim bi ba noppi ne ko dellool xam-xam bi ci yàlla ñu ñëwaat ci lañ fa def ci ay at mu waxaat ko lañ fa def ba noppi ne ko dellool xam-xam bi ci yàlla kon xam-xam lépp ci yàlla lañ koy delloo moom mooy ki xam xaqiqatan képp ku xam moo la jox tuuti ci xam nga xam kon nit ki lu mu xam xam bu mu bew bu mu ko bàkkoo bu mu fëgg dënnam mais ne delloo xam-xam bi ci yàlla na delloo xam-xam bi ci yàlla wàcce boppam xam ne yàlla def ne wa ma utitum min al ilmi illa qalila lu néew lañu leen jox ci xam-xam te loolu mu ngi ci jublu mbindeef yépp doomu aadama yépp parce que uuti tum foofu damir bi ñépp la ci dugg lu waay am ci xam-xam rek ci tuuti boobu mu naan xalilan boobu ca nga ko amee léegi lu xalil lu tuuti bu ko ñu bëri bu bokkee kon ku nekk looy am ku nekk tuuti ngay am as toq ngay am kon bul yéem sa bopp li mu ko nett li mu ko wax nii mu nettali ko wax dëgg yàlla ab njàmbaar la ndax ñu ñëw laaj ko lu mel nii loo xam mi ngi xewoon ñaatay at ñi ngi naan laata Moussa di ñëw la xisatu ashaabul li tax ku mel ne Ibn Kathir nee na li tax parce que yahud yi ñoo ko wax waa Quraysh pour ñu laaj ko Muhammad la fekk yahudi di intéressé wu ci xissa bi mooy ne xëy na kon dañ koo fekk ci seen téere seen téere nettali ko kon laata musa di ñëw la xewoon am ñu ne déedéet diggante Moussa ak Isa fi la xewee am ñu ne ginnaaw bi Isa ñëwee ci la xew ba léegi xew-xew bi kañ la xew yàlla moom moo ko xam mais li ñu xam mooy ne yonent bi alayhi salatu wasallam nettali bi mu ko la waaye njàmbaar googu ku mu koy delloo ndax ab sag wala da koy puukare woo wala da koy delloo yàlla subhanahu wa taala loolu la dañuy jàngee fii mooy na kon bul wax bul xam ba sa xam yéem xam-xam yéem la ngay fëgg sa dënn wala ngay teg sa bopp fenn loo xam-xam-xam-xam dellool xam-xam bi ci yàlla subhanahu wa taala nga gis ne xamuloo dara moo tax mu ne ko moom mooy boroom kumpay asamaan ak suuf lahu xaybu samawati wal ard mooy boroomam magasin yi nga xam ne mooy magasin yi kumpa yi yàlla subhanahu wa taala moo ko baaxoo caabi ya ca borom bi subhanahu wa taala la nekk kumpa yooyu moom rek moo ko jagoo qul laa yaalamu man fi samawati wal ardi alxayba illa allah amul ku xam kumpa ci asamaan ak suuf ku dul yàlla subhanahu wa taala li ñu tuddee alxaybul mutlaq muy kumpa gi nga xam ne mooy kumpa gi yàlla nëbb jaam ñi xamuñu ko ci doxinu mbir mi ak doxinu asamaan asamaan ak suuf ak jamono ji ak àdduna bi ak ëllëgam ci li fi xewi ji bu ëllëgee ci kumpa yooyu yàlla rek moo ko jagoo mu des nag ne am na ci lu ñuy tuddee kumpa loo xam ni léeg-léeg mën na bañ a nekk kumpa à 100 pour cent mais kumpa la ci ñenn mën na bañ lu mel ne li ñuy waxtaanee fii de mu xew fii ñu koy waxtaanee tey ku nekk meneen réew moom kumpa la moom mais ñun du kumpa si ñun ñoom itam la xew foofu kumpa ci ñoom kumpa la ñun mooy ñu koy tuddee xayb xayb nisbi loo xamante nit mën na jaar ci ay méthode ay moyen ba xam ko gis ko xëy na jiitu ci nit ñi bien que nit ñi ko xamul ñoom kumpa la ci ñoom mais dootul kumpa ci moom am na ay moyens yu ci mën a accéder loolu xaybu la kumpa la mais du à 100 pour cent parce que yàlla def na ko ba léegi nit ñi ay nit mën koo xam mais kumpa bi nga xam ne kumpa dëgg dëgg dëgg dëgg la moom yàlla nëbbu ko jaam ñi amul kenn ku ci mën a àgg xam ko xataa yonent yi yàlla joxu leen ko lenn la leen ci baaxee ngir ñu jottalee ko seen i yónnent gim leen yónni mu nekk comme ay firnde yu wane ne li ñuy wax ni dëgg la yàlla moo leen ko wax yu kon dafay mel ay kéemtaan lay doon loolu tax yàlla jox ci lenn yonent yi ngir ñu wax ko fala yudhiru ala ghaybihi ahadan illa man irtada min rasul genn rek ci yonent yi la ciy jox lenn ngir ñu jottali seen seen yónnent googule waaye jëmmi kumpa ci boppam moom yàlla baaxewu ko kenn ci jaam yi ku mën a doon mu daal di wax ne absir bihi wa asmi aka a mën a gis aka a mën a dégg moom borom bi subhanahu wa taala absir bihi ak a moo ko mën a gis aka moo ko mën a dégg kenn dàq koo gis kenn dàq koo dégg amul lépp luy lu ñuy mën a gis ci kaw suuf wala asamaan ak suuf lu dul ne borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy gis ci gisam bi nga xam ne dafa matale lépp dara génn ko lu tuuti tuuti lu nekk ci asamaan wala suuf yàlla mi ngi koy gis yàlla mi ngi gis bay gis boo demoon ci biir géej ab pax bu fa nekk bu xóotaat ci biir géej am xuntu lëndën lëndëmi géej gi lëndën lëndëmi xuntu ma nga dugal fa ab xeer bu ñuul teg fa ab xorondom bu ñuul kaw xeer bu ñuul boobu lëndëm lëndëm yooyu yëpp daje ci kaw xeer bi ak ñuulu xeer bi ak ñuulu xorondom bi tànk ya muy dox yàlla mi ngi koy gis subhanahu wa taala kooku lan moo mën a génn ab gisam dara mënut a génn gisub yàlla naka noonu itam ab déggam dara mënu koo génn dara mënut a mucc déggub yàlla mu jur lan ci ci loolu boo ko xamee yow jullit bi nga koy jàng ci téere yàlla bi yàlla di la ko wax lan la war a jur ci yow lan la war a jur ci yow mooy nga sàmmoonteeg sa borom ci ne mi ngi lay gis mi ngi lay dégg mënoo def ci nguuram gi wala nga wax fi loo xam ne génn na gisub yàlla wala mu génn ab déggam loolu la war a def ci yow yow jullit bi du xam ko rek di ko yéemu mais loolu nga ci war a jànge as ndaw ñëw na ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk ko ci néegu Aïcha mu ne ko dama la soxla yonente bi beru dama la soxla mooy kon li mu koy wax lu lu lu lu confidentiel la digganteem ak yonente bi alayhi salatu wasalaam la yonente bi daal di jóg beru dem à côté bàyyi Aïcha fi mu toogoon ndaw si ñëw deey di ko deey di ko jàmbat ci ci ci jëkkëram ci borom këram di ko wax ci borom këram Aïcha nee na mënuma dégg li ko ndaw si di wax damay dégg muy ngun nguni rek ndaw si dafa génn rek yàlla wàcce alquran Aïcha ne yàlla kay subhanahu wa taala maa ngi tudd ab sellaay moom mi nga xam ne ab déggam dafa matale lépp loo xam ne dañ koy dégg lépp loo xam ne kàddu la rek ci kaw asamaan ak suuf ab déggam matale na ko nee maa ngi toog ci même néeg bi beru ak yonte bi alayhi salatu di ko déey li muy wax mënuma koo dégg nee na yàlla ma ca juróom-ñaari asamaan dégg li ndaw si di jooytu yonte bi alayhi salatu wasalam ba bi ndaw si di génn yàlla subhanahu wa wàcce ay ay alquran di tontu loolu ñu doon laaj yonente bi alayhi salatu wasalam kooku mooy jalla jalaaluhu kon dégg boobu ak gis boobu dafa war a am lu mu ji ci jullit bi mooy muraqabatullah mooy di sàmmonteeg sa boroom ragal sa boroom ci ne mi ngi lay gis di la dégg kon bu mu gis ci yow mukk lu dul noonu bu mu dégg ci yow itam lu dul noonu ma lahum min dunihi min wali mu ne ñoom imma hum bi da nga koy delloo ci asxaabul kahf wala nga delloo ko ci ñoom ñëpp muy xeetu asxaabul kahf yooya mun ne ñoom ñooña imma asxaabul kahf wala ñoom ñooña muy seenu xeet amuñu ab féete ci kudul yàlla subhanahu wa taala ma lahum min wali amuñu seen ak féete koo xam ne mooy féetewoo seeni mbir di taxaw ci seeni mbir di ko lijjanti ku dul borom bi subhanahu wa taala mënuñu koo am ci keneen loolu kon mooy wane qudratullahi subhanahu wa taala al kawniya mooy ne yàlla subhanahu wa taala moom moo pekk ndar képp ci kàttanam ak ci mën-mënam ak ci ndogalam lépp lu nekk ci asamaan ak suuf kenn mënta pexe wala nga am kàttan ba def fi lenn loo xam ne dafay génn coobarey borom bi subhanahu wa taala coobareem coobarey borom bi mooy lim ne lii rek moo fi am leneen lu dul li du fi am loolu kenn mënu koo génn muy luwaa boobu yàlla subhanahu wa taala teg ci kaw suuf mu ne wala yushriku fi xukmihi am na ci qiraat ku jàng wala tushrik fi xukmihi ahada li muy tekki mooy wala yushriku fi xukmihi ahada te moom yàlla subhanahu wa taala ab atteem bi nga xam ne moom lay atte ci di doxal mbir yépp muy li ñu tuddee al xukmu al kawni al qadari muy atte bi muy atte lu nekk mu attee ko nii muy doxee noonu loolu amul kenn kuñ ciy bokkaaleel moom borom bi subhanahu wa taala moom rek moo ko jagoo amul kenn ku ko ci fekk si mooy moom loola moo ko rek moom rek moo ko jagoo boolewu ci kenn moo tax mu ne wala yushriku ci riwaayatu wala tushrik tere la bu muy teree yonte bi alayhi salatu ne ko bul bokkaale ak yàlla ci doxal bi muy doxal atte bi muy atte mbir yi kenn fi xukmihi ahada ba léegi itam wala yushriku fi xukmihi ahada al xukmu shar'i muy atte bi muy atte ci ay tëralin yi muy tëral ci diggante jaam ñi yàlla boolew ci kenn loolu àqam la moom rek moo ko yelloo moom rek moo ko jagoo kenn amul sañ-sañ di tëral ay atte ak ay doxalin di ci jaarale nit ñi di ci yëwanal seen i mbir di ci atte seen i mbir ku dul borom bi subhanahu wa taala moom mi leen sàkk képp ku ko def dugg nga ci nguuru yàlla ndax yàlla mi sàkk jaam ñi indil leen fi moom rek moo am sañ-sañu ne seeni mbir ci lii lay jaar nii lañ koy yëwanale ku def lii nañ ko atteli ku def lii lii keneen ku jël loolu nga revendiquer ko ne yow yaa ko sañ-sañu def yaa ngi xëccoog yàlla nguuram gi mooy shirk daal di dugg foofu bokkaale day daal di dugg foofu ndax loolu sañ-sañu yàlla la subhanahu wa taala kon ñaari xukm yooyu yépp dafay dugg ci li wax ne wala yushriku fi xukmihi ahada muy xukmu muy attey ndogal yi nga xam ne da koy atte ci jaam ñi ak attey tëral yi nga xam ne da koy atte di ko tëralal jaam ñi ngir ñu war cee jaar amul lenn lu kenn am sañ-sañ di ci dugg ndax yàlla rek moo ko jagoo boolew ca kenn mu daal di waxaat yonte bi alayhi salatu wasallam ne ko watlu ma uxiya ilayka min kitaabi rabbik la mubaddila li kalimaati walan walan tajida min dunihi multahada muy tëj qissa bi di ko defal di ko delloo ci muy jàng alquran ci li yàlla subhanahu wa taala wàcce ci moom ak jublu ci yàlla subhanahu wa xam ne itam yàlla lu mu wax de su ko wuutal du soppeeku te itam amoo wéeruwaay amoo laquwaay bu dul fa yàlla subhanahu wa taala daal di dugg ak moom ci wasbir nafsaka ak ba mu jeex ñu bañ a avancer tuuti ndax xissa bi jeex na léegi ñu delluwaat ci xissatu asxaabul kahf aska asxaabul kahf ay ndaw lañ yàlla subhanahu wa di nettali seen i mbir ci alquran di wax ne la mu def ak ñoom boo ko xoolee ak kéemtaani yàlla yi ak kattani yàlla di nga xam ne du lu yéeme ndax mbind gi yàlla bind asamaan ak suuf tàggat lépp lu fi nekk moo gën a rëy loolu fop ku am looy yéemu rek ak a jaaxle looloo la war a gën a jaaxal looloo la war a gën a yéem mu wax ci ne ay ndaw lañ yàlla baaxee leen tàbbal ci seen xol ngëm ñu daj ngëm googu yëg ne loolu lu wér la dañoo war a jaamu seen borom ndax moom rek moo ko yelloo ñu weddi la seen waxeet nekkoon dellu ci yàlla ñu fitnaal leen tànc leen menacé leen ñu daw ngir rëccal seen ngëm mu jaral leen ñu daw ngir rëccal seen ngëm ndax ngëm des koy sàmm doo jël sa ngëm nga exposé ko danga koy sàmm ba dara du ci du du du ko xajamal ba ñu dawee làqatu ji ci loolu la la leen dal fa foofa la leen dalee muy ca xunt moomu nga xam ne làqu nañ fa yàlla subhanahu wa def ci ñoom yërmande muccal leen itam ca lañu doon daw yóbbu leen ci lu ko gën sàmm leen sàmm seeni yaram ñu nekk fa diir bu yàgg mu dekkil leen fexe ba dajale lewo dajale leen waat ak seenu nit joxe leen ci njàng mu rëy rëy rëy muy wane ne yàlla subhanahu wa taala ku am kàttan la ci bu faatee nit ñi delloo waat leen comme ni ñu meloon subhanahu wa taala am yeneen mbir ak ay njàngat yu bari aju ci loola mooy ci mbir mooma naka la demee nit dafa dañ kumpa boo ko xamalee tuuti day bëgg nga yokk ko yàlla subhanahu wa taala nettali nañu li nga xam ne mooy liy jariñ ci seen wu mbir la ca amul njariñ concerné wuñu mu noppi ca ndax xam na ni amaluñ njariñ bu ñu amaloon njariñ mu nettali ko waaye nettaliwuñ ko ndax amaluñ njariñ waaye terewul ne nit ñi dañ koy bëgg a xam ndax xam xaj bi nu mu tudd xam ñoom kaf bi fan la nekkoon xam xaj bi kan moo ko moomoon ban couleur la meloon ak yu mel noonu yooyu léegi ban njariñ la la amal yow jullit bi yow mi laaj li la amal njariñ te nga soxla ko yàlla wax na la ko ci alquranam ji nettali la ko ci mbiru gaa yooyu la jëlal ci ñoom ay bind jëlal ci ñoom ay njàng ci ne boo demee ba dund ci jamono joo xam ne dëgg dafa tumuranke diine dafa tumuranke sa ngëm jaral la nga jóg góor góorlu saxal sa diine ñoŋal sa diine loolu yow nga war a jële comme jàng ci lii yàlla loolu la jàngal yonent bi alayhi salatu ci xissa bi mu ne yow muhammad alayhi salatu wasalam yabal naa la ci aw xeet jox la dëgg joo xam ne sikki sàkkawloo ci nga ne ci am nit ñu nu kuréel gu neew ju ci nekk ak yow di la ci jàppale saw saw xeet noonu la di la fitnaal di la bunu góor góorgóorlu nga muñ góorgóorlu leen ngeen sàmm seen diine góorgóorlu leen ngeen taxaw ci seen ngëm yàlla dëgg dëgg ba dara du leen ci delloo gannaaw ba bu jaree ngeen daw sax ngeen daw làqu ji feneen jaamu seen borom sàmm seen ngëm ngeen def ko te fi'lan yonent bi alayhi salatu wasallam def na ko ndax bi mu demee ba mbir yi tar mënatu koo dékku ci makka dafa digal jullit ñu dem xabasha dem nañ fa ñaari yoon benn bi jotuñu àgg bi ci des ci lañ àgg toog fa moom itam bi mu demee ba sonn sallallahu alayhi wa yàlla tànnal ko feneen fu gën foofa mu dem fa dund fa diineem saxal fa lislaamam waaye loolu sacrifice la laaj ndax booy bàyyi dara la tax nga koy bàyyi da la koy gënal man da lay gënal li ngay bàyyi bu la yàlla di tax di bàyyi dara loo bëgg day yàlla àgg la fenn fi bëgg yàlla nekk lu dëgër mu jaral la moom borom bi subhanahu wa taala ngëm gi mu ko ngëm ak dig bi mu la dig ci loolu mu jaral la nga def ay sacrifice bàyyi dara ngir mun a sàmm sa ngëm dëgg-dëgg mais bu dee say intérêt yi àdduna ak daray àdduna jaralu la nga def ay sacrifice pour sa diine moom dëgg-dëgg ku ku ku yàlla doyoo di ci